jërëjëf mbokk yee xarit yi ci ànd bi ak teew teewlu ñuy jéggaluwaat euh, sànq ce sont les aléas du direct bu ko defee bi ñu leen nuyuwaatee rafetlu ànd bi ak taamu gi ngeen taamu suñuy programme ñu tàmbali waat vous bi leen la rédaction du proposé tous les dimanches à 21h ma si ànd saa su ne ak Alaaji Grégoire Ngom Alaaji maa ngi lay nuyuwaat di la bàyyi nga nuyu téléspectateurs yi. waaw ma lay fay jaar bi tey di la ziar amaan mbégte tam di janook yow ci dibéer gi yaakaar tamit ne mboolem askan mi nga xam ne jamono ji ñuy àddu ñu ñuy teelu ñu ngi ci jàmm di nuyu aussi la famille Sène depuis la France comme que nee nañ dañuy tëdd foo ñu teel leen a nuyu daal <laughs> di nuyu Mija ak Émile Max Demba Sène nuy lancer international. <laughs> ji léegi baax na euh, Babou maa ngi lay nuyu di la di la ziar lancer international war war nga wax ak sa binôme de sa binôme sikk na. non damay non bàyyi ko wax dara. dañu bàyyi ba damay ba fin émission bi Adja moom benn maam lu mu ko surxal. Adja di la nuyu tamit di la fay bu baax a baax amaat kontaan mm-hmm. te partagé ak yow li nga xamante ne moo di plateau sport sur 7. di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñoo jàkkaarloo ko ñun comme ni ñu ko defee tous les dimanches di xaar seen émission bu mag bi ñu waxtaanee lépp loo xamante moo jëm ci wàllum tàggat yaram mu mel ni Adja na mu mel ni tey ñetti ponk tey. Euh, euh, ko waxee euh, ci athlétisme tey moom la ñuy jox la part belle ndax dafa am doomu Sénégal bu am record bu am solo performance bu am solo bu mu def muy Louis François Mendy ñu war a ñëwaat nag waxtaan ak ki nga xamante ne da ko considéré comme mentoram Euh, war a mën a jaar ci ay tànkam mooy d'ailleurs l'unique médaille olympique euh, du Sénégal dinañu ñëwaat aussi largement ci violence bi nga xamante ne gis nañ ne nemmeeku nañ ko manifeste na ci football ba tax la commission de discipline de la Ligue sénégalaise euh, de football professionnel jël dogal Adja Ndégoum ki nga xamante ne moom mooy AS Pikine ci seen base affective am aussi ay sanctions pécuniaires tey on va poser la question est-ce que sanction yooyu kese doy na ndax gis nañ ne à chaque fois dañuy récidiver te lu ci bëri diggante ay supporters lay jóge yan mesure fort lañ ci mun a jël ngir mun a permettre li nga xamante ne ab fléau la maanaam góom la boo xamante ne dañ ko war a saafara ci footballu Sénégal rawatina football local pour football bi gën a jëm ci kanam waaye balaay loolu dañu waxtaanee basketball ndax suñu gaynde jigéen yi ñu ngi wàcc ñu nga war a dem fële ci afro basket bi war a démarrer fële ci Kigali le 28 juillet incha allah prochain waaye balaa ñuy tàmbali li nga xamante ne moom mooy développement bi ñu nuyu dalal jàmm ki nga xamante ne tey moom sunu gan. muy El Hadji Amadou Diaba mu jiite euh, ab centre d'excellence bu nekk fii ci ndakaaru ñu nara a waxtaanee li nga xamante ne moom mooy athlétisme et je le rappelle aussi sànq maa ngi koy wax c'est l'unique médaille olympique du Sénégal malheureusement El Hadji Amadou Diaba directeur ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci plateau sport sur 7. Euh, merci Adja. Euh, di am kontaan ñëw si émission bi à chaque fois. bii di l' international. nuyu international nuyu nuyu Grégoire nga xam ne yàgg na gisuma ko moom tamit. <laughs> mais vraiment di di kontaan si si liggéey bi ngeen di def parce que ñu sportif yi lu ñu def yéen journalistes yi yéen a koy wan population bi population bi xam vraiment gox yi gox goxaan yi la fa xew en matière de sport loolu vraiment aussi il faut ñu ñu leen di delloo njukkal parce que yombul tamit. e que bon vraiment au passage di remercier tous vos collègues sportifs aussi je connais j'en connais beaucoup vraiment di leen gërëm leen sant vraiment si liggéey bi ñuy def parce que sport bi su eggee fi mu war a egg tamit journalistes yi am nañ si am nañ si wàll wàll yaa ngi wax léegi Louis François mi ngi battre record 3 en France yéen yéen ngi koy wax fii si Sénégal nit ñi nit ñi nit ñi mën ko xam et vraiment di ñaan jàmm si réew mi comme ni ngeen ko waxee et vraiment jàmm am fii jàmm sax fii ah si loolu la ñuy ñaan daal parce que fu jàmm am rek ah lépp lu ñu mën a def rek day yomb donc vraiment di ñaan ñëpp nekk si jàmm ñëpp ñu nekk si jàmm Sénégal dëkku jàmm la jàmm lañ fi xam mm-hmm. donc euh, vraiment ñu continuer si si si loolu Amin. Alors, euh, merci beaucoup, Elhadji Amadou Diaba. Je rappelle que vous êtes le directeur euh, du Centre de développement africain euh, de l'athlétisme. On devait aussi recevoir war a waxtaanee ci football bi Mamadou Gueye président AS Pikine ndax ñoom dañ leen sanctionné ñu monté au mais sanction yooyu duñu ko nangu tey duñu ñu ko nangu ëllëg amoon na sax euh, ay recours yoo xamante ne annoncé nañ ko demoon nañ sax ba ne du ñu dàq déposer li nga xamante ne moom mooy benn recours fële. Euh, ci tribunal arbitral du sport on devait échanger avec moom ci euh, ponk yooyu lu ñàkk suñu yeneen jotaay incha allah ñu ñu ñëw ci euh, il s'est excusé tout à l'heure ci jafe-jafe yim am pour ñëw mais n'empêche on va revenir largement ci li nga xamante ne tey euh, moom mooy euh, sujet yi ñu nar a abordé euh, te sànq ma junj leen ko à l'entame de mes propos bu ko defee dañ koy tàmbale ak basketball baabu ki nga xamante ne moom moo leen di tàggat muy Moustapha Gueye alarba bi il a fait face à la presse dellu siwaat na nag il avait dégagé une pré de dix-neuf joueuses ci dix-neuf joueuses yooyu nag wàññi na ci juróom désormais elles sont 14. effectivement Adja elles sont 14 moom daal wax na li nga xamante ne déglu na intervention yi nga xamante ne joueuse mi def nañ ko ci média bi nee na daal intervention yi daal parce que ñoom ñëpp li ñuy wax yëpp mooy dañoo bëgg a li nga xamante ne moo di Coupe d'Afrique ndaxte depuis boobu 2015 ba tey ñu ngi daw ci ginnaaw moom daal nee na déclaration d'intention amul sens li am sens mooy na xale yi liggéey ndax dafa jàpp ne yor na équipe C'est le podium dans le désordre. Je disais aux filles hier dans leur intervention à la maa ngi wax ak xale yi ndaxte seen intervention yi ci presse bi dañuy wax ne dañu dem pour gagner lii di afrobasket bi loolu lu baax la ñu def ko seen bopp waaye dañu war a def li nga xamante ne moo di moyen pour gagner ko maa ngi wax ne gannaaw juróom-ñaari at ca gannaaw ba ñu dem fa li nga xamante ne moo di Yaoundé dama doon wax ne déclaration d'intention yi loolu amul benn njariñ li ñu war a def mooy liggéey lu bari sans pression sans gêne ci yi dem si Coupe d'Afrique bi yëpp li ñu fay demee mooy jël li nga xamante ne moo di trophée bi te ñun nag daañu def suñu kéemtalaay kattan pour gagner ko. pour gagner gagner ne se décrète pas toutes les équipes qui viennent à qui iront au Rwanda iront pour gagner et nous on va défendre calmement nos chances cette on a on a une belle équipe. ndax année bi am nañu équipe bu baax am na si yaakaar bu baax a baax ndax am na ay joueurs vraiment de qualité yu am détermination te am naa si yaakaar mais nañ si demee ndànk rek protéger équipe bi bu baax a baax euh, ñu def suñu kéemtalaay kattan pour gagner match yëpp muy Mali Ouganda wala Nigéria en tout cas ñun daal daañu défendre crânement li nga xamante ne moo di suñu ay chance que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Nigeria, on n'a pas d'état d'âme à ce niveau-là. Quand on voilà c'était la réaction du sélectionneur euh, national Moustapha Gueye jamono ji ñi ngi liggéey prévoiroon nañ sax benn tournoi bu ñu waroon dem aux États-Unis mais malheureusement baabu euh, tournoi bi ak calendrier yi ak préparatifu Afrobasket bi euh, méngoowul looloo waral cette fois-ci Sénégal continuer toog fii wéyal li nga xamante ne moom mooy préparation bi. effectivement Adja nee na sax bu ñu demee fële ca Kigali daañuy joué foofu ñaari match yoo xamante ne ay match de préparation contre Égypte ak dëkk bi nga xamante ne moo di Rwanda ñuy dalal compétition bi moom daal wax na tamit li nga xamante ne moo di liste maanaam euh, joueurs yi nee na ñu bari dañu doon commenté di wax ne équipe maanaam dañuy jëlaat ay yoo xamante ne dañoo màgget mais moom daal mu ngi wax ne jose yi nga xamante ne ñoo fa nekk ñu nekk ay xale ñoo fa ëpp si li nga xamante moo di 14 yu mu maanaam yu mu convoqué ba noppi wax na tamit li nga xamante ne Lions yi war a représenter Sénégal fële ci jeu de la francophonie ñu xool réaction bi ñëwaat. mais y a beaucoup de jeunes yoo xam ne indi nañ leen pour élargir un peu le la base de travail bon équipe U25 bi muy maillon boo xam ne dafa ñu amal solo lool ndax assurer un la relève de l'équipe féminine dafa doon suñu à moyen terme pour ne pas dire à court boo seetee ci équipe senior bi senior fii bi dem euh, les 14 la beaucoup de xale yi ñoo ci ëpp léegi mag ñi te loolu moo doon suñu suñu mbëbët depuis depuis il y a deux ans ba ma waxee ne euh, le rajeunissement bi c'est un processus boo xam ne c'est irréversible kenn mënu dellu ginnaaw même si Aya Fatou Dieng sont revenus en appoint mais beaucoup d'anciennes aussi sont partis ba nga xam ne léegi xale yi ñoo ñoo jël euh, champ bi. may rafetlu un peu euh, bi ñu am pour dem participer aux Jeux de la francophonie avec euh, euh, xale yi boo seetee équipe U25 bi ñu ci nekk bitim réew bëriwul ñu ci ëpp championnat local bi nekk mais suba ñooy ñooy demit bitim réew loolu mooy indi souvent bu ñu tànn tamit ñu tànn ñi nekk ci biti parce que toujours les meilleurs ñooy dem ma leen di ñaanal aussi ñoom tamit ñoom opportunité yooyu dem moyen seen talent un peu dans le monde donc loolu laa amoon. lu ma ciy wax di wax ne listu équipe A bi dañ ko wàññee ba 14 choses ñoo xam ne suba ñu continuer liggéey bi euh, tournoi bi ñu war a dem Kansas City dañ ko mujj a euh, dañ ko mën a teggi parce que promoteur bi dafa changé un peu le timing décalé ko ba mois d'août te ñu loolu arrangé Voilà, c'était la réaction de Moustapha Gueye, c'est le sélectionneur national de l'équipe féminine A de basketball nekk aussi directeur technique national mu ñëwaat ci beneen sélection des moins de vingt cinq ans ñooñu fukk ak juróom-ñaar lañ dañu jëm ci jeu de jeu de la francophonie yi war a am fële ci république démocratique du Congo loolu di ñëw léegi euh, mais euh, coach bi cette fois-ci euh, lay interpellé par rapport à cette actualité Euh, gaynde yi euh, elle devait aller aux États-Unis Kansas City finalement ils sont pas partis ñi ngi fii dinañ am de rencontre amicale fële bu ñu demee ci Rwanda est-ce que loolu c'est suffisant pour euh, leur permettre ñu entamer cette fois-ci beneen Afrobasket avec peut-être comme ambition figurer ci podium bi wala pourquoi pas sur la plus haute marche du podium. mais comme ni ko Tafa waxee ah ñoom li ñuy dem foofu pour gagner. kuy dem si ay jongante da ngay dem pour gagner ni mu ko waxee nee na am nañu équipe boo xam ne ne mën na gagner championnat yi parce que ça fait des années ñi ngi xaar Sénégal gagner euh, championnat championnat d'Afrique bi donc euh, di leen ñaanal vraiment ñu suñu demee foofu ñu mën fa rehausser le drapeau national avec cette mouvance de victoire bi ñu am actuellement dans le football ou dans d'autres disciplines le manko la que nous avons il faut que ñoom tamit le manko dem uti ndam li te Tafa il est il est il a les outils c'est un grand entraîneur ah et puis man rencontré naa ko en en 2016 avant les Jeux olympiques parce que woowoon na ma ma ñëw waxtaan ak euh, joueuses yi wax leen sama expérience olympique et tout ça nga xam ne moom euh, xalaatam tamit euh, màcc na si si yu bari parce que dina jox un peu un plus à à ces Euh, waxtaan ak ñoom comment sax se prépare des Jeux olympiques comment soo demee Jeux olympiques comment ñuy mel yëpp donc te xam naa ne am na ñeneen ñu mu jël tamit ñu mën a waxtaan ak xale yi et puis c'est des comme ni mu ko waxee ay ay xale la yu si nekk ay mag parce que tamit ay mag y a l'expérience ça joue aussi ah expérience ñu mu jël ñu am ay expérience la ñu donc équipe rek doo ñëw rek changé ko totalement moom xam na xam xam na li muy def mais c'est dommage que tamit demuñu Kansas defi defi ay euh, compétition ay entraînement comme ni mu ko waxee am na yeneen euh, yeneen euh, compétition yu mu am au niveau de Kigali ah pour pouvoir. Euh, deux vraiment de deux matchs est mais fii tamit Dakar tamit Dakar tamit am na ñu mun na fi def ay matchs déggoon naa ne avec des garçons ou des d'autres équipes yoo xam ne. pour se se préparer et puis bon xalaataan nag beneen yoon nag suñuy préparer jongante yu mel nii def un bon programme. ah programme bu baax a baax a baax ba nga xam ne ne ah du am benn gàllankoor. loolu lay discipline yëpp loolu la ñuy ñaan une très bonne préparation boo xam ne ñoom du am gànnaakooru du ñu di ñuy dem Kansas dem ñu Kansas entraîneur bi dina joxe son programme ba nga xam ne dinañ ko mën a mën a suivre parce que ñu ñëpp Sénégal du ñu bëgg mooy ndamu réew mi yóbbu le drapeau vraiment très haut andi fi andi fi ay médailles. Gré par rapport à cette préparation may rappeler un tout petit peu. cette préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations ci wàllu football parce que dans son discours il dit que euh, une Coupe d'Afrique ne se décrète pas. Mm pour mën a gagner cette Coupe d'Afrique là ni mu ko waxee woon kàddu yoo xam ne génnoon na tey ci maître Augustin Senghor donc euh, je que quelque part ils sont en train tey de un travail d'ensemble boo xamante ne nii le manque est en train d'être mis en place ba ci biir basketball bi. donc euh, c'est une liste boo xamante ne nii c'était une liste assez élargie tey bu ñu donc ça prouve nettement que moom segg na seggaat na aussi son groupe donc euh, je me dis tey ñi mu retenir am na ay certitude tey par rapport ak ces joueuses là li mu bëgg tey ci tournoi boobu noonu ñoom lay amal bon dire que nag aussi deux matchs de préparation ça suffit pas bu fekkente ni dañu bëgg a dem ci benn coupe d'Afrique des nations mais aussi il faut savoir faire avec les moyens du bord parce que tournoi bi nga xam ne boobatoon na ko pour amal ko xëy na gàllankoor moom moo dugg ba loolu noonu mu jëwut a antu donc xam na groupe am aussi Euh, li muy def moom mooy xam na tournoi yi fan la jëm ak moom aussi décalage bi il faudra aussi mu préserver ay joueurs parce que aussi c'est groupe boo xamante ne ni am na ñu bees am na ñoo xam ne xam nañ lan mooy afro basket donc euh, partir avec cette expérience la de loo xamante ne ni tey dafa am importance par rapport tey ak préparation une compétition bu toll nii Coupe d'Afrique des Nations ku ne aussi xam na tey xaar bi nga xam ne ñu ngi koy xaar une nation comme le Sénégal bi nga xam ne jot nañu ko xiif tey un trophée continental donc il faut dire que Tafa Gueye nekkul koo xam ne novice la ci biir cette sélection la xam na tey lan mooy équipe nationale xam na lan mooy compétition de ce genre donc pour man deux matchs yi c'est peu mais aussi euh, xam na tey euh, fan la war a mën a préparer ces joueuses la parce que donte tey ñaari marché yooyu noonu lu ñu mënti tuuti tuuti aussi xam na tey lan la ci war a mën a tiire tey ba taxawal ay joueuses am donc euh, dire que man ça ne me préoccupe pas par rapport a cette préoccupation parce que c'est quelqu'un boo xamante ne ni il connaît l'Afrique il connaît ses joueurs te boo xoolee cette sélection là pour man euh, c'est la base de l'équipe nationale du Sénégal qui a la Coupe d'Afrique des nation donc euh, li muy def rek moom mooy apporter tey quelques rectificatifs wala bokk tey indi un tout petit peu de sang neuf par rapport ak tey cette Coupe d'Afrique des Nations là dire que aussi euh, ba fi ñu toll nii ndey ji nii pour man la préparation ça importe fi ñu toll parce que def nañ assez de temps un stage boo xam ne fii la woon jékki-jékki fermer le stage là donc xam na li mu bëgg xam na fi mu jëm li ci des c'est juste matérialiser ça sur les parquets. donc on n'a qu'à avoir bon espoir Babou par rapport à la préparation une coupe d'Afrique reste une coupe d'Afrique parce que ce sont les meilleurs euh, ñoom ñoo war a retrouver wu fële ca Kigali ca Rwanda c'est vrai sur place dina disputer deux rencontres euh, mais ni ko El Hadji Amadou Diaba on espère que une prochaine fois la fédération dina ko jàppale gën a projeté wu par rapport ak li nga xamante ne moom mooy préparation bi parce que préparation bi elle est très importante voire même déterminante par rapport ak euh, cours compétition bi. effectivement Adja xam naa dina ñi nga xamante ñoo di fédéraux yi yaakaar naa dañu dégg li nga xamante ne mooy sa mhm. euh, nga xamante ne di préparation plus la pour ñi nga xamante moo di joueurs yi parce que dinañ dem daje ak yeneen ñoo xamante ne yeneen joueurs yoo xamante ne de haut niveau mais bon comme que noonu la demee peut-être loolu tam mën nañu jàpp ne plus la mais comme que depuis depuis ñoom ñu ngi nekk en regroupement presque léegi mat euh, bu ñu bi xëy jàpp naa loolu tamit euh, c'est un plus tamit Adja ñu wax ne boo xoolee ñi nga xamante ne sportif yi nga xamante ne topp wàllum basket ñu si bëri boo laajee li nga xamante moo di équipe bi jamono ji Sénégal mu yor nii nee nañ ñoom daal am nañ si yaakaar bu baax ndax di vraiment équipe bi nii équipe bu ñu am yaakaar la pour mu jël li nga xamante moo di maanaam maanaam coupe Adja am na yeneen équipe yi tamit yu émergé mhm. boo xoolee équipe yi nga xamante comme Ouganda jëm ba Rwanda de même mhm. équipe bi nga xamante mhm. a li ñu a peut-être dina nekk lu ñu neex ak loo xamante lu ñu na lu ñu naqari la mooy équipe bi bi parce que ñi nga xamante ñoom ñëpp ay Amérique ay américaine mais euh, ñoom jamono ji bokkuñ ci nga xamante mooy maanaam euh, sélection Niger euh, sélection nigérienne bi parce que ñoom dañoo mere seen fédération parce que fédération bi dafa leen waroon yóbbu li nga xamante moo jëm ci wàllum coupe du monde bi ñoom nag euh, fédération bi dafa mujjoon ba amuñu moyen pour mën a yóbbu gars yi fi nga xamante moo tax si euh, bëri dañoo boycotté ñu jàpp ne loolu plus la pour jou euh, équipe yi nga xamante ne ñu ngi la wax ay outsider gannaaw équipe yi nga xamante moo di Nigéria mu di Sénégal nekk premier outsider bi ak équipe bi nga xamante ne moo di maanaam Mali Adja en tout a baax alors euh, on espère dafa am loo ci loo ci bëgg a ajouter très rapidement dafa xam ne lu muy def parce que soo naree jógee léegi Sénégal nara dem États-Unis def ay des heures et des heures de vol avec le décalage aussi qui trois heures ou quatre heures cinq heures de décalage war a ñëwaat nara récupérer décalage boobu yu mel noonu nara demaat Kigali peut-être tamit moom ñoom tamit xool nañu loolu tamit parce que il faut que suñu suñu suñu suñu joueuses yi vraiment mën a récupérer parce que c'est c'est long Kansas. et puis c'est il y a cinq heures de décalage aussi. c'est long nar a ñëwaat nar a voyagé waat encore en Afrique de l'Est. c'est c'est des voyages très très longs te. mais à défaut de ce tournoi waroon nañ ut beneen plan B aussi parce que aussi une bonne préparation dafay augurer li nga xamante ne euh, moom mooy. déroulement championnat bi nga xamante ne ci la ñu ci la ñu jëm euh, c'est vrai que am nañu Rwanda am nañ ki nga xamante ne moom mooy Égypte mais comme il l'avait fait avec garçon yi balaa ñuy dem ci tournoi bi nga xamante ne moo doon euh, qualificatif euh, ci coupe du monde bi on a vu que amoon nañ fi fii ay rencontre amicale dama xamul nag ndax dafa nekk ci dafa nekkul ci moyen fédération et c'est là où on attend cette fois-ci la fédération sénégalaise de basketball ba par rapport ak préparation boobu peut-être suñu mënoon invité une ou deux équipes yoo xamante ne moom Moustapha Gueye dina mun a confronter ak ñoom pour mun a permettre moom mu xam déjà ñi nga xamante ne moment bi ñoom ñoo nekk les pour mun leen jël mun leen yóbbu fi nga xamante ne moom mooy euh, Kigali mais de toute façon on on a fois ci ki nga xamante ne moom mooy expérience am en tant que sélectionneur et puis on rappelle euh, que ñi nga xamante ne ñoom ñooy les u cinq dinañu dem fële euh, participer ci jeu de la francophonie mais en même temps euh, moom Moustapha Gueye rendre na public liste bi nga xamante ne ngañ Demba Sagana Diop ndax ngañ Demba Sagana moom la ñu dénk la sélection masculine euh, ñoom nag dañu war a dem diggante le 12 ak le 20 août prochain fële ca Lagos ñu war a nag tàmbali seen regroupement fileek le 20 juillet ndax dafa am benn tournoi boo xamante ne aussi danañu fa dem euh, ci Chine diggante le 2 ak le 8 août euh, bu ñu ca jógee nag ñu dem foofa ca Nigéria préparer li nga xamante ne moom mooy tournoi bu qualificatif ci Jeux olympiques vingt vingt quatre yi ci lu soxal nag jigéen ñi nga am moins de vingt cinq ans ñoom génne nañ liste bi sànq maa ngi koy wax c'est dix sept joueuses ci dix sept joueuses yooyu nag ñoom dinañu dem ci Jeux de la francophonie qui est prévu le vingt huit juillet foofa nag état bi dafay intervenir à rawatina ministère des sports donc il prévoit benn regroupement bu dix jours balaa ñu fi jóge nag ndax plusieurs disciplines. mooy dem fële nga xamante ne moom mooy ci Kinshasa euh, pour représenter li nga xamante ne moom mooy la Sénégal mais foofu très rapidement rek en quelques secondes peut-être que vous avez suivi l'actualité mais euh, certaines euh, certaines nations comme la France wala wala yenn yi am na wala yenn fédération ils ont décidé que du ñu du ñu yóbbu seen i euh, seen i euh, seen i pensionnaires fële ca ca ca Kinshasa pour des raisons de sécurité pour des raisons sanitaires Euh, pour pour des jeux de la francophonie loolu des fois du la xaw a heurté. je pense que ça fait daaw daaw la ñu waroon def jeux yi donc ñu reculer ko ba ren donc euh, je pense que war nañu mën a pare pour euh, recevoir le tous les pays francophones du monde. parce que suñu bëggee am ay compétition comme les Commonwealth. il faut que Commonwealth moom c'est une très grande compétition c'est des pays qui parlent anglais. Donc je pense que les francophones doivent faire la, la même chose. Mais en général, euh, les jeux de la francophonie, euh, les grandes nations amènent que les équipes B voient le humain Donc euh, je pense que c'est les fers de lance, c'est la France et, le Canada en général. Donc je pense que nous aurons de, de, de, des jeux euh, en Afrique, euh, en l'instar des derniers jeux qu'on avait fait à Abidjan. Donc de toutes les façons, il y a beaucoup de disciplines euh, sénégalaises qui se préparent pour participer à, à ces Jeux à, Kinshasa. et on espère qu'il y aura une très forte participation de de l'Afrique à ces Jeux-là alors ñu dugg ci suñu sujet euh, bu njëkk Grégoire ci wàllu athlétisme dellusiwaat ci doomu Sénégal di Louis François Mendy. Ajaas mën na ki may waxale tey nag eh, bu ñu koy xayma rek moom mooy eh, le recordman mondial bu Sénégal bu nga xam ne nag def na tey loo xamante ni gëjoon nañu ko gis ci dendu athlétisme fii ci réew ko Sénégal moom nag déjà je dirais que sax il avait déjà annoncé le temps li nga xamante moom moo nekkoon meeting international bu Diamniadio mm-hmm. ak un chrono boo xamante ni c'était assez important parce que bu ñu koy xool foofu defoon na 13 secondes tey nag mu dem ba ca France def fa un chrono de sénégalais parce que non seulement dem na tey ca Budapest mais Jeux olympiques yu Paris eh, nag dafay wutali rek ngir def tey li nga xamante ne ni ah, moom mooy daal di fay représenté tey lii ci wàllu ko Sénégal ñu dellu si war performance. bu ñuy xayma sax moom daanaka damoon na record national ba ci meeting bu Genève ak 1336 ya mu fa defoon loolee benn weer ci ginnaaw jéego bu rëy bi mu defati rek taxati jamono ji mu romb sax record minima bi ñu fixé ci ci lu ni mu yokk ci sax ne dafay ubbil boppam ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août ca Budapest ginnaaw ba mu amalee ñetti yoon li nga xam mooy beneen uppa chrono jamono ji moom doomi réewu Sénégal bi mu ngi nii fësal rek fukk ak benneelu uppa chrono bi gën ci année luy le Louis François Mendy daanaka sax defati beneen uppa jéego ci àdduna wërngal këpp bu ñu koy xayma marque bi ñu mujjee woon a gis ci bu ni mel amoon na fukki fan ci weeru juin ca meeting bu Genève foofe sax 13 secondes 33 centimes la ñu doon waxtaanee. voilà l'athlète sénégalais Louis François Mendy euh, ñu gis euh, record bu am solo bi nga xamante ne def na ko ci li nga xamante ne moom mooy euh, discipline bi nga xamante ne moom mooy la discipline ren ci jeux yi ndax d'habitude dañu gisoon ne suñu yenn athlètes yi léegi suñuy dem ci jeux yi nga xamante ne maanaam compétition bi gën a prestigieuse ci àdduna muy les Jeux olympiques dañuy am wild card maanaam dañuy am invitation cette fois-ci moom mi di Louis François Mendy yegg na ci minima yoo xamante ne permettre na ko mu mun a qualifier wu ci jeux yooyu waaye yemul foofu ndax ñu ngi jëm aussi ci ay championnat du monde championnat du monde yooyu war a am Budapest mu euh, euh, amaat li nga xamante ne moom mooy cette fois-ci sésame bi koy permettre mu mun a participer championnat du monde ba pare battre li nga xamante ne moom mooy record am fii ci Sénégal mu nekk nag euh, ab au fait ci wàllu athlétisme looloo waral tey ñu war a waxtaanee li nga xamante ne moom mooy performance bi mais balaa ñuy ñëw ci liggéey bi nga xamante ne moom moo ko permettre mu mun a defagum li nga xamante ne euh, moom mooy euh, qualification yi mu am ci Jeux olympiques ak championnat du monde am na ay kàddu yoo xamante ne yëkkati na ko Grégoire waaw Dia moom mi la def nii nag tey ci li nga xamante ni tey moom moo wund une performance de telle envergure tey fi nga xamante ni tey ñu ngi koy waxtaanee parce que record bi la ñuy wax waaye laata record bi tam am na foo xam ne moom luy François jot na fi jaar ñu teewloo ay kàddoom. international sénégalais tout d'abord damay remercier son coach formateur Adama Badji di remercier aussi le centre AADC yi koy dirigé di sama papa sama mentor Amadou Diaba di remercier aussi sama coach. Euh, Alain Ismaël et Amadou Diouf ainsi de suite ñoom David Eto'o waa comité olympique jàpp nañ bu baax a baax ak euh, waa fédération sénégalaise d'athlétisme parce que sax ñoom du ma mënoon euh, war a li ma bëggoon def du mën a nekk ba ma egg ci fii nii ci kaw ma mën a def ñaari minima à la fois minima aux Jeux olympiques et championnat du monde bi war a am ci année bii course bi c'était bien comme course yëpp laa ko jëlee posément parce que comme damay liggéey sama course tout le temps li ma mooy course bu nekk da nga koy jël course par course et du coup euh, depuis boobu léegi sant yàlla c'est en course euh, pas facile ci man parce que ñi may daal aussi c'est des concurrents potentiels du coup dama ne woon ni bu may dem quelque soit compétition bu mag championnat du monde aux Jeux olympiques sama minimal laa demee du ma demee ak Royal Car invitation et tout yàlla def depuis 2012 su ma juumul le Sénégal gëj a am qualifié au minimum di ko yàlla wërsëgalal ma ko tey ma ñaan yàlla mu wërsëgal ko aussi <clears throat> sama yeneen confrère ak confrère ak sœurs yi na si ginnaaw yàlla may leen loolu tamit ni mun ko def. championnat du di sama objectif mooy jàll premier tour dem demi-finale après demi-finale tout est possible dem loolu la liggéey année bi yëpp ak sama coach di ko ne demi-finale moo nekk sama rêve instant bi nii pour championnat du monde après demi-finale tout est possible loolu moo nekk sama target instant bi li ma def keroog fàtte naa ko du coup maa ngi ci beneen lancé instant bi nii euh, pour ce qui est aux Jeux olympiques ça comme li wax rek des réserves surprise bi pour 2024 ñëwul maa ngi liggéey nag nag ak euh, sama staff yi tout di ñaan yàlla mu bàyyi ñu fay jàmm ak salaam ba ñu mun ko fekkee Rendez-vous au et merci beaucoup à tout le monde. Et précisément aussi, c'est mon coach formateur et c'est mon papa El Hadj Amadou Diawa parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Bi ma fii nii bu baax a baax sama encore. Il a elle a beaucoup fait aussi pour moi. Di sant ñëpp. Et di souhaiter aussi bonne chance aux athlètes pour les minima des JO ainsi que pour les championnats du monde en Suisse. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était la réaction de lui, François Mendy. Beau, beau moi qu'est-ce que vous avez senti ah ben, euh, Comme ñëpp ah kontaan si si li mu def parce que ñenn ñi sax daan nañ ko raay mais man daaw ma ko raay dama ko ne ko soo defalee minimum jarul ngay dem Jeux olympiques jarul ngay dem ay championnat du monde parce que dem nga ñaari yoon championnat du monde benn yoon Jeux olympiques ah invitation bàyyil ñeneen ñu jox leen invitation. mu ne ma papa dinaa def minima donc am na mental pour def euh, minima donc vraiment tout le mérite moom la vraiment parce que dafa liggéey liggéey parce que ñu bari dinañu wax ne mais lu muy def Sénégal est-ce que du dem États-Unis du dem feneen feneen muy Mbacké nekk na champion du monde fii si centre bi ah, Amantele Muccio nekk na champion du monde fii si centre parce que condition yi ñu am fii de ay conditions yu baax la lenn rek moo manqué fii au niveau du du Sénégal à Afrique c'est de grandes donc moo tax ñoom ñuy entraîner ba fév ba avril daw hiver bi fële nga xam ne su ñu demee Europe dina fekk mu xaw a tàng ñu mën a daw ñu mën a def ay performance yu mel noonu donc euh, tout le mérite pour lui la vraiment euh, li mu def euh, lu rëy la parce que onzième performance mondiale te soo xoolee si ñeneen ñi am na ay américains ko jiitu su parce que américains ñett la ñu am droit pour ñu def championnat du monde yi soo dindee ñeneen ñi si des donc xamal ne mi ngi presque mun na dugg final donc euh, désormais il fait partie des dix premiers. des des onze meilleurs des onze meilleurs. dans sa catégorie il a la meilleure performance mondiale sur cent dix mètres haies. cent dix mètres haies. voilà moo yore meilleure performance mondiale. donc soo xoolee fu mu nekk France su nekkoon euh, français mooy le premier donc dafa progresser parce que lui depuis 2017 la commencé à entraîner yàgg naa ko wax fii ci plateau bi souvent dañu may wax ne Diaba pourquoi ah, yow rek yaa am médaille olympique pourquoi ñeneen ñi amuñu médaille olympique tout le temps même réponse yi laa leen wax. ku nekkul ci huit premiers yi mondial pendant des années munoo gagné dara ku dem par wild card munoo gagné dara jeux olympiques ñu mujj dem wild card dañu demee donc mun ñu fa am lu ñuy xalaat donc euh, moo tax ñu ngi tàngat suñu si athlètes pour ñu mën a def comme lui mën a def def ay minima yoo xam ne ne tu te tu te places parmi les huit meilleurs du monde parce que ñun suñu objectif loolu la. Mm-hmm. ah am pour mu nekk dans huit meilleurs mais ndànk-ndànk rek parce que moom depuis 2017 mi ngi liggéey. mais est-ce que 2017 il est en train de travailler il est il est dans dans dans dans le dans centre. centre bi nag ñu koy gërëmee suñu directeur général Lamine Fati parce que moom moo xeex ba centre bi ubbi parce que soo xoolee football lan moo tax mu avancé actuellement mais depuis 2002 on a fait ay des académies ay jàmbaar mm. ay génération foot. yooyu la su meilleurs joueurs yi ngay gis ñu ne actuellement yooyu foofu la ñu jógee donc ñun yeneen discipline il faut ñu am yu mel noonu moo tax euh, ñuy ñuy gërëm suñu suñu directeur général lu mu imposer ba ñu am centre bi parce que centre bi su amuloon peut-être ay luy mun nañu mun nañ si ñàkk am ñàkk nañu ay luy yu bari tamit mais dina permettre ñu entraîner ay athlètes pour le mettre sur le haut niveau xoolal 2017 ba léegi ñaata at la war na mat cinq ans 6 ans mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi góorgóorlu mi ngi pour pour arriver à ça donc te dafa am mental loolu moom ma neex si moom mental bi mu am moom ma neex si lui parce que lui il il mettait deux heures demi demie ou trois heures fu mu dëkk di ñëw pour entraînement. justement avant muy ñëw si centre bi. Mm-hmm. donc euh, yooyu yooyu yëpp da lay mm-hmm. donc moo tax euh, résultat bi moom la déjà fédération sénégalaise d'athlétisme aussi il faut que parce que il appartient à une fédération. fédération tamit ñu ngi liggéey vraiment pour nga kii mais tamit aussi y a le comité olympique a. on lui a donné une bourse d'excellence ouais. avec huit autres athlètes pour ñu préparer pour qualifier aux Jeux olympiques donc du moom moom moo njëkk a mais yaakaar nañu ne ñeneen ñi presque président Diagne Ndiaye en aux Jeux olympiques de Tokyo bi ñu paree dafa ñëw ak ah, meram daane mais ñun Sénégal mais lan moo tax mun kii ñu Ibrahima Wade mi ngi toog premier vice-président Seydina secrétaire général et on lui a voilà su fekkee ne jàppale nañu ay certains athlètes notre dinañu mën a réussir bourse bi rek du doy mu ne su fekkee ne loolu rek moom dina def kéemtalaay kàttanam pour ñu jàpp daal de. d' accord après dina euh, ñëw ci somme boobu. donc par rapport ak moo ma ne la. donc cette solidarité olympique là faaw faaw ñu ñëw si bourse bi euh, tamit euh, ah ñi ko jàppale ñëpp te moom laa lay wax ah comme CA jàpp na si Conféges tamit jàppale wu ko à un moment. Mm. aussi il faut il faut voir la fédération ñëpp. lépp daal daal dafa nekk si lu yàgg daal. Mm-hmm. du lu yomb rek ñu mu mu mu mu ñor lay quoi duñ ko yàgg topp di ko defar te am na yeneen athlètes yoo xam ne tamit suñu jaaree nii du moom rek moo nar a def performance parce que am na yeneen athlètes yoo xam ne mën ñu def euh, mën nañu def performance comme moom. d'accord man si loolu sax laa bëgg ñëw parce que dama waxtaan ak colonel Sarawali li ma wax moom mooy euh, même athlète temps bi muy def il faut travailler ça te ma même une seconde on peut travailler ça durant cinq années doo ko am. donc euh, lui François tey on part du record mais avant ce record là yaa ngi mooy wax 2017 donc ça veut dire que am na ay échec yu bëri yoo xam ne ñoom ñoo présenté tey ce travail là bi nga koy récupérer ci yan condition la nekkoon et puis cette préparation là jusqu'à ce qu'il arrive ici parce que maa koy dégg sànq bi mu njëkkee wax dafa wax benn ñaar ne papa donc ça veut dire que au delà du travail am ngeen beneen relation waroon ñëwaat ci loolu noonu tey. waaw mais 2017 entraîneur am Adama Badji dafa ñëw fëgg sama bureau ma mën ko dugal ma dugal. ba gisoo moo ànd ak lui mu ne ma directeur euh, am naa benn athlète boo xam ne vraiment yóbbu naa ko fii léegi pour am naa ay qualité léegi dama bëgg vraiment nga jàpp si comme ni nga jàppalee Babou am na beneen athlète bu mu lu mu def 400 mètres yi Babou tamit normalement waroon na topp tànku tànku tànku lui mais kii du benn donc man tamit man tamit rek euh, man ne ko d'accord si lay si lañ ko joxee le transport par la confédération africaine pour mu ñëw di entraîner dans le groupe de performance ah soo gisee groupe de performance la bokkoon après fédération Ane Bistop fédération ak centre bi ak jàppale ko mu nekk centre bi après ñu jox ko bourse Confédération après si le comité olympique euh, daal di ñëw donc on a des relations yoo xam ne euh, vraiment bi ma njëkkee ñëw ñu commencé yaayam la ma paas yaayam daan ne ma ah comme que yéen a koy gis guddi ak bëccëg léegi yow yaay papaam bàyyi naa ko yow. <laughs> ma ne ko yaa ngi may sas de <laughs> mu ne ma waaw parce que yéen yéen yéen lay gis guddee bëccëg. ma ne ko kon d'accord nañ ci war nañ ko def moo tax athlètes yi en général su may su may kii luy di ko di ko anglais anglais yu metti day metti athlètes yi parce que ñoom du ñu xam lan maa seeko wax moom. donc euh, voilà mu déggal ma nag vraiment ku ma déggal la yàlla def euh, vraiment comme ni ma ko waxee jonction ñëpp jàpp si ba ba xam naa du yem fii rek ah. parce moom am na mental. pour pour pour pour pour, euh, comme ni mu ko waxee. day dem série dem demi final su duggee finale lépp xaj nañ ko. donc am na mental pour le pour le championnats du monde déjà ça va être un test pour lui. de mm-hmm. rencontrer les meilleurs. Mm-hmm. et après se préparer pour les pour les Jeux olympiques. donc am na am na yaakaar quoi. Mm-hmm. moom mu ngi nekkoon ci mooy chrono bu mujj def mu ngi nekkoon ci 13 euh, 59 mu wàccee ba 13 18. est-ce que mun nañ jàpp mën na def lu gën a yees li nga xamante moo di 13 18. mais mën na ko mën ko soo gisee course bi première e bi da ko laal. te saa yoo laalee e da ngay ay centièmes. da ngay ay centièmes donc il s'est réer ay battu record en 13 18. donc euh, am na ñu yaakaar moom si boppam sax euh, motivation la am na objectif bam xam nga objectif bam lan la. Mm-hmm. am na objectif boo xam ne war na ko atteindre déjà atteindre bi qualifié championnat lu motivant la pour moom dina ko pour mu mën a def euh, un petit plus pour être parmi les meilleurs. donc mën nañ euh, mën nañ am yaakaar euh, maanaam mu ñu si li nga xamante ne moom Adja koy wax une deuxième médaille olympique. ah man ñun mooy sunu mbébét ñun ñëpp ah moom lañ koy ñaanal ñun ñëpp. mais ci Sénégalais en général ñëpp moom lañ koy ñaanal. ci naka ak ban période nga nga xalaat. comme je l'ai toujours dit quoi j'aimerais bien voir un Sénégalais gagner une médaille. mais ci naka parce que là dugg na ci li nga xamante ne moom mooy les onze meilleurs. nekk na si léegi mi ngi ci loo bi. mais il faut un travail. le travail peut-être 2024 c'est trop juste c'est vrai il a intégré le centre à en en en deux mille en 2017 mais commencé di ci moment bi les meilleurs et au fur à mesure expérience bi day ñëw fi ne nii tàmbali na imprégné wu carrément ci haut niveau mais vous il vous a fallu aussi nga dem ba bokk ci pas les onze meilleurs mais les trois meilleurs voire les cinq les cinq meilleurs voire les trois meilleurs pour yow loolu ci ci ci ci ci combien de de de temps la ko mun a def peut-être pas les jeux yii nii yu Paris yi. mais peut-être en deux mille vingt huit. moo tax ma ne il va préparer les championnats du monde moom xam na lan moo koy yóbbu championnat du monde pour rentrer en finale et ça lui donne des perspectives pour euh, pour les Jeux olympiques et je pense que il va descendre les les les les treize dix huit il va les descendre normalement parce que il dans une dynamique. Mm-hmm. il est dans une dynamique de progression et il n'a plus de pression maintenant. Mm-hmm. donc ah oui donc, moment bii la gën a ñàkk pression que bu parce que maintenant il est libéré il est qualifié au championnat du monde il va préparer les championnats du monde et les jeux olympiques ça ça te libère déjà donc dina gën a travailler avec son entraîneur et surtout avec le, staff technique son entraîneur Alain Smaël qui est dans le centre euh, épaulé par euh, Amrou Diouf qui est de, la direction technique du, du, du, euh, de la Fédération sénégalaise d'athlétisme donc euh, vraiment ils sont en train de travailler am ils ont leur plan de travail. man est-ce que man jàpp ne euh, li nga xamante ne mooy euh, euh, championnat du monde yi war a am au mois d'août. au mois d'août au mois d'août est-ce que jàpp ne moom mooy mooy gën mooy déterminer maanaam performance yi mu war a def nga maanaam fële ci JO yi en. si 2024 c'est déterminant yëpp yëpp chaîne la benn chaîne la rek il va faire les Jeux de la francophonie après les Jeux de la francophonie il va faire les championnats du monde et après il va faire des compétitions et il se prépare pour les Jeux. maintenant, il faut une bonne préparation. Là, le, le, le, le vice-président Ibrahim Ouad, j'ai discuté avec lui et Bala et Sedina mm -hmm. et le président Diagna pour ko lui donne euh, une voilà. aide substantielle. Nous devons nous rallonger. a rallonger. Nous devons parce que les war na mën di dem compétition di ànd ak entraîneur am di ànd ak un médecin bu koy bu koy un kiné bu koy toppatoo parce que athlète de haut niveau yi dafa am lu mu laaj donc euh, donc yooyu euh, ko dinañ ko. passeport diplomatique bi nag. <laughs> am na ko wala amagu ko. passeport diplomatique yi joxul parenthèse damay bu am solo joxul joxul passeport diplomatique joxul kenn. Euh, médaille mais par rapport pour faciliter ses déplacements mais mais mais mi ngi mi ngi mi ngi voyager mi ngi def lépp actuellement. donc su ko amee ce sera un plus quoi donc euh, c' est pas une demande boo xam ne ne mun na ko poser sur la table actuellement ce qu'il faut maintenant c' est avoir une bonne préparation avoir les moyens de de se de se préparer qu'il soit un athlète d'élite et le comité olympique, la fédération, ils sont là pour pouvoir pousser et, l'aider et aussi ça motive les autres athlètes aussi hein et ce sont, comité ñoo ñëpp pour pour mettre ko ci condition yooyu parce que vous on, on, ouais, on se rappelle parce que, parce vous avez eu le soutien entier de l'ancien chef de l'État sénégalais mais oui, c'est oui, pas un soutien entier donc je pense qu'actuellement le président de la fédération le président vous aviez ban nga amoon jamono jooju du comité olympique je pense c'est des porteurs de voix yoo xam ne suñu toogee autorités yi mun nañ leen expliquer le le le programme que parce que l'athlète ne va plus venir demander lii mais il fait un programme et ce programme là va être euh, sollicité par le le le le président du comité olympique voilà. et le président de, ah, ah, wala président fédération athlétisme ah ñun tamit ñi nga xam ne mun nañ si jàpp pour pour xam moom li mu bëgg moom mooy wax lan la bëgg lii la lii la avec son manager ñu jëm ko et président est-ce mën nañu wax ne luy euh, il le droit de faire yi nga xamante ne mooy maanaam euh, chrono bu mu def maanaam treize dix-huit wartu ko war wartu ko daka war di gën a wàccee wartu war ah, di gën di yëg non non non loolu du athlétisme aldine tey nga def treize dix-huit suba nga def treize quarante suba nga def treize vingt wala nga def noonu la temps yi day yéeg di wàcc donc euh, du tous les jours ngay am <laughs> ngay battre sa record man sama record yoon laa ko daw daw ma ko ñaari yoon d'accord sama record benn yoon laa ko daw daw ma ko ñaari yoon donc euh, <laughs> il faut il faut nañu ñaan rek mu du chaque course nag la war a battre record am du chaque course mais euh, am nañu yaakaar ne dina ko baat parce que bërki démb daw na Sotteville avec deux moins deux mètres vent de face. vendredi. vendredi oui. moins deux mètres vent de face il a fait un excellent temps. Ah. donc loolu moo ñuy moo ñuy permettre ne bon il faut connaître sur le plan technique daal nu nu muy demee quoi. mais am nañu yaakaar si moom. Mhm. sànq da nga da nga xëy na dama en profondeur moom mooy ëllëgam en deux mille vingt quatre la jëm donc préparation am na lu bëri loo xam ne laaj na ko te tey. Euh, man quelque part je me dis que une performance boo xamante ne nii ça contraste ak athlétisme Sénégal ni muy doxee jamono ji parce que c'est performance boo xam ne tey bu ñu ci amoon ñaar ba ci ñett dina am beneen level boo xam ne na dafa yóbbu athlétisme mais donc tiir que euh, la préparation mais aussi les moyens quelque part dañuy tax suñuy athlètes di stagner donc ku xam athlétisme xam ne seen une discipline assez complexe préparation bi c'est avant pendant et après donc euh, c'est stop tey Louis François def na ce record là il s'achemine vers Budapest d'abord balaa ñoo wax waxu euh, Paris mais fi ñu toll nii dans cette préparation là accompagnement bi fan la war a mën a gën a féete parce que aussi bu ñu koy wax euh, athlétisme c'est une discipline boo xam ne tey par exemple ni football bi jotee soutien beneen discipline di ko jotee soutien ñoom du ñu gisee seen bopp foofu noonu donc dans cet préparation là fan la tey mu war a gën a mën a appuyer ces euh, soutenu ba tey arriver à faire ces performances là l'athlétisme sénégalais tey et l'aspect soutien pratiquement. waaw mais li nga wax wax nga ko donc nous on demande pas l'égalité on demande l'équité. secteur wolof. ñun waaw. Mhm. waxuñu li football am ñun war nañ ko am yeneen discipline war nañ ko am war na athlétisme war nañ ko am parce que football ñëpp xam nañu ne c'est l'opium du peuple quoi <laughs> ñëpp xam nañu football moom mais ni ni ñuy jàppale football war nañ ko mën a jàppale yeneen discipline. athlétisme sooxe woon na fi ñu bëri di di ñu ŋàññ mais léegi ñu ngi ñëw nànk nànk ku man ni lui am nañu un coureur de quatre cent qui est à quarante cinq mm-hmm. quarante. Diouf nous avons am nañu Salissar. te moom ñu na ñu am yaakaar waay 21 ans la am Tripso. Mm-hmm. def na treize quatre vingt et quatre vingt sept. Mm-hmm. te xam naa ne dina def dugg si quatorze mètres yi ah. donc ñun am nañu ñeneen. mais yooyu yëpp. diñ ko liggéey sans moyen. elles moo tax ñun on demande des moyens fédération soo gisee Saara Waly jaar na fi ba ki dem. Mm-hmm. lan la doon wax dañ ko jàppale. Mm-hmm. yenn fédération yi fi jaar il faut ñu jàppale leen. maintenant jàppale ah, bi jàppale bi c'est la ko mun a defee. d'abord jàppale bi la formation Adja. la formation des entraîneurs. Ouais, la mais... formation des officiels. Ouais. donner des moyens parce que ñëpp xam nañu Sénégal bariwul ay compétition de au niveau. bu nga def ko luy su fekk na Sénégal rek lay daw def temps bi mu def. donc il faut que athlètes yi am xaalis boo xam ne billet pour dem France dëkkuwaay yooyu yëpp dafa dafa cher ñëpp xam ngeen ne heure bu dafa cher aja xam ngeen mm-hmm. donc moo tax moyens yi suñ koy laajte c'est là yi tamit suñ koy laajte fii c'est la motivation de nos entraîneurs parce que soo gisee ah am na ay yoo xam ne dañ leen ni fay mm-hmm. mais Aliou Diouf fay ñu kenn entraîneur bi day ñëw rek su ko neexee mu ñëw su ko neexee du ñëw mais yooyu bi dañ ko war a bàyyi mm-hmm. il faut ñu jox ñu ah y même comme yeneen fédération du ñu yelloo loo xam ne dina leen permettre mooy li ma la wax avoir une bonne formation des entraîneurs avoir une bonne formation des officiels avoir une formation administrative des fédération am un lieu de fédération et puis mën a song nag la masse pour athlètes yi mën a ñëw pour mhm. yéeg si si élite bi donc moo tax cette politique sportive là il faut mu am alors en attendant politique sportive boobu di am parce que et moi je comme comme fois les, parce qu'il ñu avancer un peu euh, damay jël sa exemple centre parce que ñëpp mënuñu nekk ay champion olympique am na ci ñoo xamante ne am nañ ci ñoom euh, espoir mhm. lan la état bi mun a def pour jàppale leen comme par exemple ni luy jaaree yow ci sa centre ba permettre ko après mu mun amaat bourse benn solidarité olympique pour mun a cette fois-ci dem en Europe am beneen entraîneur boo xamante ne moom mooy ñoom ñooy nekk ensemble mu koy mu koy jàppale ci yan anam lañ mën a jàppale des jeunes athlètes ñu ñëw ci sa ci sa ci sa centre centre bi lan la bi il faut il avoir une bourse pour mën a dugg ci centre bi am na ñu luy am na bourse solidarité olympique ñi centre am na yeneen ñaari athlètes Sali Sofia ñi nga xam ne ils am nañu ñoom ñaar am nañu bourse euh, conférence au passage maa ngi félicité Convergence parce que ñoom treize bourses la ñu joxe. donc centre bi donc cinq onze cinq sur le sur cent mètres elle fait partie des elle était finaliste au championnat du monde de Doha sur deux cent mètres donc on a de très bons athlètes Sénégal nag leen lañ mën a def. si centre bi donner des moyens au centre donner des moyens aux fédérations d'abord fédération yi andi andi at yi dans le centre pour qu'on puisse travailler parce que athlètes yi il faut du dëkkuwaay di faut que ñu jox leen ñu am docteur yu leen di faj suñu gaañoo entraîneur yi tamit il faut ñu motiver leen donc euh, dafa nekk loo xam ne ne yombul mais de moyens mooy donc il faut que ñu am pas benn centre am yeneen centre euh, yoo xam ne ne mun na dans les régions, parce qu'il y a les, il y a les, a les, aussi, voir les universités, parce que ya a des, on a des entraîneurs optionnels d'athlétisme qui sont là-bas. Si nous les pour développer l'athlétisme, nous on sait comment, comment, comment, comment faire pour. Euh, mais, mais c'est problème de moyens, c'est les problèmes d'argent, c'est tout quoi. en attendant ñu ñu jël raccourci comme ni ñu def ak football parce que football jëluñu yoonu normal dañu jël ay raccourci moom moo permettre résultat yi. par rapport ak détec détection parce que vous il vous arrive nga dugg ci ci ci dëkk bi am na ci ñoo xamante ne potentiellement bu ñu leen gisee ay pépites lañ ay diamant brut lañ yoo xamante ne su suffit que ñu taaye ko rek ñu mun a ñu ñu ñu mun a briller loolu ci ci yan anam ak xëy na ban nombre parce que aussi nous sommes dans un pays où tout est priorisé mais aussi on sait que lu mel ni athlétisme bu ñu ci investir am na benn retour bu am solo bu mun a amal li nga xamante ne moom mooy dëkk bi te gis nañ ko ci mel ni quand le chef de l'État defuñu politique defanuñu politique mais la a compris li nga xamante ne moom mooy njëriñu sport ci li nga xamante ne moom mooy doxalinu nation ci ci ci yan anam rek ci quelque peut-être di d'ici quatre ans wala huit ans maximum peut-être au moins ñu ñu ñu mun a dégg daal yi ci wàllu athlétisme mais si wàllu athlétisme ah wala discipline yëpp a yam mais cette fois-ci la cagnotte qu'on a au football suñ ko joxoon fédération bu nekk fédération yi dinañu mën a réussir. mais est-ce que mën nañu ko jox fédération bu nekk aussi. non xam naa mënuñoo ko jox fédération bu moom laa doon wax sànq. on demande l'égalité mais on demande. l'égalité parce que parce que parce que yooyu yëpp d'accord nañu mais su fekkee ne ñun nous sommes nous sommes pas des sports professionnels normalement état bi waroon nañu gën a mën a jàppale yenn fédération yi surtout fédération athlétisme qui est la première discipline et que nous avons un ñun am nañu programme de détection wóor. qu'on appelle le kit in athletics, qu'on qu fait partout dans, le, dans, dans, le, dans, dans le, euh, dans les ligues et tout ça, avec la Fédération sénégalaise d'athlétisme. mais c' est c' est comme je dis quoi. s'il n'y a pas de moyen c' est un peu compliqué moyens yi nga xamante moo nekk football peut être yi nga xamante non bu ñu wax football football moom suñu ko waxee rek di di di ñuy biaisé yëpp daal voilà non bu ñu football moom bu ñu comparé quoi parce que suñu comparé rek dañuy biaisé quoi. maa ngi ñëw damaa ne comme Adja ko junj léegi quoi. waaw xam nga fédération. ñu euh, ngi war a def ñu ngi war a defaraat li nga xamante moo di stade euh, maanaam stade Demba Diop mhm. te fa kaaf dugal na ci loxo parce que kaaf moo joxe presque budget bi yëpp ñu defaraat li nga xamante moo di stade bi mais nañu gis ne li nga xamante moo di Diamniadio le vainqueur médaille kese ko si dëkku Afrique yëpp amuñu prime kenn loo jox loo xamante benn xaalis boo xamante dañ koy gagné ngay am dem loolu tamit ñi nga xamante moo di maanaam euh, pays nga xamante ñu bay seen waar nga xamante ne athlètes yi dinañ sawar dem ay compétition ndax bu ñu demee su ma am lii dinaa am temps mais dem dem bu dëkk nga dem daw jël premier am li nga xamante moo di médaille rek loolu tamit du motivation bi day day des aussi waaw mais meetingu Dakar ñu ngi door a commencé ñu ngi def deuxième édition athlète ku gagné di nga am mm-hmm. di nga am pécule quand donc euh, et puis moo tax ñuy tàngat athlètes pour ñu nekk dans de dans des conditions pour rentrer dans les Diamond League et dans les grandes compétitions en donc yooyu yëpp euh, liggéey la laaj mais liggéey bi yëpp c'est sur la base il faut base bi euh, nekk une base très solide solide parce que sinon duñu duñu du ñu dem fen daal ça va être toujours un stage ça va être toujours euh, vraiment loo xam ne du du du avancer parce que mooy li ma la boo xam ne day liggéey ba wàcc ñëw entraîner ba kenn donc mais un programme moo dama ne il faut il faut comme tout à l'heure je la politique sportive bi ñu war a émerger dans ce dans ce pays parce que ñëpp xam nañu actuellement euh, Sénégal mun na mun na am ay athlètes yoo xam ne ne des sportifs parce que man dama ak yow ci ci détection parce que détection boobu il faut que mu am ñu xam xëy na ngeen cibler quelques jeunes yoo xamante peut-être bu ngeen leen dugalee ci bi en attendant parce que le centre existe déjà donc le centre c'est c'est un acquis en attendant peut-être ñuy defaat yeneen ak yeneen centre mais ñu ñëw ci ci question. waaw parce que je me dis on avait tey du ci mel ni UASU dans dans dans la direction tey daf ñu doon dimbali si lu bëri Amadou Gakou toog nañ ma expliqué ma par exemple ñoom seen modèle de direction ni ñu daan def à travers les différentes régions tey la région de Kolda mu ngi génne xëy na Vélingara Ziguinchor des trucs du genre mais à ce niveau là fi ñu toll nii dans la préparation ñu ngi jëm dans les échéances fi ñu toll nii. yaakaaroon ne tey euh, li ngay wax nii fi ñu toll nii est-ce que nekkul woon tey loo xam ne loolu ñu ko woon mën a njëkkee tey ci visibilité par rapport ak la base mu nekk fii nii set base la moom mooy gën a tey yokk ces compétitions la parce que quand quand on le aussi euh, pour man bu doon sa centre bi tey athlétisme Sénégal dina xaw a sooxe par rapport tey ñu gis ñu def yeneen découverte ba ci tey Louis François mi nga xam ne depuis 2017 tey la ñu koy door a gis en 2023. waaw mais mais mais y' a y' am nañu programme boo xam ne ne euh, au niveau de la fédération avec la direction technique avec euh, avec Pape Serigne euh, dans dans toutes les ligues du du Sénégal et même nous avons les championnats des jeunes on a fait le kit athlétique aussi un programme boo xam ne ne ça touche tous les les enfants parce que nous on on travaille pour les JOJ de 2026 aussi. actuellement on est en train de de de de, de avec le comité olympique aussi de de de. dem fu nekk dans les régions pour du Sénégal pour euh, ces JOJ parce que duñ ne duñ ko du ñu def JOJ yi rek pour participer mais du ñu def JOJ yi pour gagner donc il y un fond un travail qui se fait actuellement dans ce sens et la fédération est en train de travailler là-dessus mooy li ma la wax rek si la fédération n'a pas de moyens ne peut pas partir quoi mënul dem fenn ko ñoom xam nañu naka la ñuy def invité ngeen fi président colonel Sara Waly bërki démb xam naa défendre na ko aussi parce que ñoom ñoo xam naka la ñuy défendre si loolu. non wax na ko mais moyens yi bëriwul la. Euh, euh, euh, di di quelque part mën naa jàpp ci am sax ay financement lucratif yoo xam ne quelque part tey athlétisme dañ ko xaw a léser du coup yenn yi buñ ciy dem. donc seen i poche la ñuy obligé làmb pour dimbali yenn athlètes yi. mais moo tax may la là c' est c' est c' revoir la politique sportive le statut sportif euh, comment ça se passer et je pense que tout cela c' est c' est c' est en train de se faire les gens ont beaucoup d' idées là-dessus. Mm-hmm. et pour pouvoir ñu euh, mën a concrétiser loolu pour ñu mën a am vraiment pour def lii lii la lii la lii la lii la daal. parce que loolu loolu noonu la ñuy avancé daal mais suñ ko defulee moom dinañu am ay. ay peut-être benn Louis François tey nar a xaaraat ay cinq ans six ans sept ans pour amaat keneen wala keneen ak keneen or que mun nañu am suñu booloo yëpp mun nañu am de très grand de très grand sport mais liggéey boobu mi ngi mi ngi mi ngi parce que avec les JOJ de vraiment fédération yëpp ñu ngi en de liggéey si kii et puis même au niveau des infrastructures c'est un problème wala athlétisme pour def compétition jam ñaajo nga jëm actuellement parce que c'est très difficile pour dem jam ñaajo di nga dépenser peut-être deux mille ou deux mille cinq fan la ko benn athlète mën a jëlee tous les jours mënul mënul c'est un problème mais actuellement avec les Jeux de nous aurons vraiment dinañu am bari ay stades yu bari parce que comité olympique ñi ngi en train ngi def ay euh, euh, ay coopération yoo xam ne ne mi ngi leen di mm-hmm. su ñu defaree state euh, Iba defar Léopold Senghor dina suñu defar Senghor su su defaroo ak yeneen euh, discipline yi bokk si JOJ dinañu am matériel boo xam ne dinañu am benn élan boo xam ne dinañu mën a mën a mën a mën a yokk niveau sport Sénégal. Sénégal surtout aussi avec la coopération bi bi comité olympique am euh, avec d'autres pays. Mhm. dinañu def ay ay ay infrastructures de proximité. yoo xam ne si c'est voilà si quartier yi lay nekk dañ ko def si euh, dix-neuf communes yëpp ils sont en de tout faire pour que mu mën a am yooyu yëpp jeux yi moo ko moo ko mën a jur parce que ñëpp xam nañ ne infrastructure am football ñoom fu ñuy footballé actuellement même football bi ñuy wax tamit c'est difficile parce que stade yëpp ba kii mais il y programme boo xam ne mi ngi avancé et que dinañ si mën a mën a am infrastructure yoo xam ne fii à deux mille deux mille vingt six voilà donc loolu ak bu bu am solo la mais mais damay ñëwaat ba léegi ci détection bi parce que yaa ngi wax ñi ngi waajal deux mille vingt six yu bëri gis nañ ne peut-être on peut gagner le pari de l'organisation mais le, le pari de la mobilisation ñu bëri seen xel da ci tey mais mun mën nañu sukkandiku aussi ci euh, ñi nga xamante ne ces jeune là de moins de dix-huit ans ñi nga xamante ne dinañ participer ci jeux yooyu. de quatorze de de de quatorze à euh, ba ñu ñu jël leen ñëpp mënuñu nekk champion olympique. c'est pas possible on va prendre les meilleurs des meilleurs. pour permettre leen tàggat leen mettre leen ci yenn ci ci yenn conditions yi euh, mais mais mais loolu en de du du, du CNOS peut-être CNOS war na wax ak ak njiitu réew mi mais vous vous êtes une personne abilité pour pour porter ce plaidoyer là même auprès du du du, du chef de l'État pour permettre parce que euh, nekkoon nañ je me benn jour fële nga xamante ne moom mooy euh, palais on se rappelle bi ñuy indi flamme olympique bi. Euh, le chef de l'État yëkkati woon na kàddu yooyu ne pour ñu amaat beneen médaille olympique alors pour yow naka nga mun a naka la ñu mun a porter plaidoyer boobu pour permettre travail de fond boobu parce que faut un travail de fond. mais Adja travail de fond boobu ñun yàgg nañu plaidoyer yàgg nañu wax lu nekk fii yàgg naa fi toog wax lan moo manqué naka la ñuy def pour amee pour avoir un. champion olympique pour avoir de très bons résultats yàgg yàgg nañu plaidoyer journaux yi ni ñu yuuxu nañu ba sonn yéen tamit xam ngeen ci dara donc mais c'est pas à nous tamit euh, de forcer euh, la main de forcer les, les portes mais wax nañ ko fii waxtaan bi yëpp waxtaan bi ñuy wax fi yëpp wala sept jeunes wala dix jeunes non il faudrait combien pour leur permettre ñu ñëw ci sa ci sa centre bi. non pour jeunes pour centre bi mooy li ma la wax loolu fédération ñoom ñooy xool am ay bourses état bi mu ne peut-être mun na may cinq bourses mun na may dix bourses mun na am ay vingt bourses. waaw je vous dis avec l'appui de du Sénégal mais ay bourses plus euh, les bourses de la Confédération plus les bourses de la solidarité pour athlètes yi mën a dugg si centre ah, pour l'instant am ah, ah, mënoon intervenir pour permettre peut-être à dix jeunes mhm. wala peut-être pourquoi pas quinze loolu la ñuy ñaan on peut être ambitieux mais loolu la ñuy ñaan permettre leen ñu mën a may déglu ñu may dix fédération sénégalaise d'athlétisme fédération bi andi athlètes yi foofu parce que ñun pour choisir dix rek yu mën a réussir direction technique fédération am na ko ba pare. déjà ils l'ont ces ils là ils l'ont des jeunes déjà on a les jeunes. et et peut-être il faudrait il faudrait donner combien au centre permettre à ces jeunes là ñu ñëw intégrer. centre mais les les prix Adja il faut il voir les bourses de la solidarité olympique c'est mille. mille cent ou mille deux cent euro euro je pense ou dollar à mille cent ou mille deux cent euros. man dama ñëw euh, euh, sànq yaa ngi wax ne euh, ñi nga xamante ne moo di état bi dafa war jàppale fédération bi affaire bi tasaaroo ci ñi nga xamante ne moo di comme centre yi nga yi ngeen yor. Euh, est ce tamit est tamit bëgg naa tamit ñàkkul ne ñàkkul ne am nga link ak ñi nga xamante ñoo di waa fédération parce que fan ne na ñoom euh, dañu am a bokk ci li nga xamante moo di nañu ko l' autre question jafe-jafe yu ñu am ni actuellement nii ci li nga xamante moo di discipline bi di euh, di athlétisme nekkul ne du ñu boole PM bi maanaam premier ministre mu boole ko ak li nga xamante moo di maanaam sport bi ñu boole ko ñaar mu nekk benn nit mu jaar ñaari département ba pare yor benn département mu jëm ci li nga xamante moo di wàllum élevage est tamit loolu tamit nekkul jafe-jafe tamit bu teg ñëwaat teguwaat ci kaw li nga xamante moo di euh, sport bi man question boobu man mënu ma répondre parce que c'est la discrétion du premier ministre c'est la discrétion de l'État donc voilà nous nous nous nous sommes nous donc mais ce que ce que nous nous savons nous avons un interlocuteur c'est le ministre des Sports et le ministre des Sports ça fait que c'est le PM mmh. je pense que la fédération ils peuvent euh, voir avec le secrétaire général ou le directeur de la compétition pour que les dossiers puissent arriver là-bas et le président Saraware était là pour lui poser ces questions ça c'est la fédération moi je suis pas de la fédération mais tout ce que je peux appuyer pour que la fédération puisse avancer je le ferai comme ni ko Adja waxee si ma voix peut porter pour que l'athlétisme puisse avancer et avoir des moyens. Et là où je peux le, le dire, j'irai le dire mm-hmm. et j'irai appuyer avec d'autres personnes pour qu'on puisse avoir euh, de, de, des voilà. résultats que nous avons avec... Euh, avec Louis François et d'autres athlètes ils sont là. Euh, maanaam réglé nañ ko mooy maanaam. Euh, athlètes yi waroon dem. yi mhm. waroon dem maanaam si. am je sais pas kooku Sara Wali ngeen ko waroon posé man. Euh, suivre ma actualité boobu mais je sais que les Jeux de la francophonie vont avoir lieu Sénégal va y participer parce que le Sénégal fait partie de. l'espace de de ba yaatal jot si. c'est là la question. c'est là la question c'est comme ça. donc votre avis y un programme que le, le, la fédération dépose au niveau du ministère et c'est le ministère qui fait son arbitrage. Mais est que déposer ah. le programme aussi ça suffit est-ce que jotul aussi ngeen acculer quelque part. acculer bon mettre la pression un peu. Ah, mais mettre la pression moom fu ñu man fu mu mën a defee loo xam ne ne dinaa mën a waxtaan ba solution ubbeeku fa moi personnellement je le ferai. alors très rapidement il nous reste euh, trente minutes mais bëggoon naa rek ci quelques secondes peut-être xam naa question boobu dafay sensible euh, mais ñi ngi wax benn discrimination par rapport ak parce que quand ki comme comme ni ko proverbe di waxee qui am rastro mal étreint parce que des fois aussi bu ñu buggee compétition bu nekk ñu participer sport bu nekk du du du du pour discriminer ou bien mais suñu buggee yenn yi il faut que des fois ñu nangu def yenn focus ci ci ci ci yenn yi bu yow loolu am na nga si waaw waaw waaw am déet c'est-à-dire ñu ñu nangu woon bàyyi lu bëri def benn focus def benn travail de de fond pour nous permettre peut-être ñu am résultat yi nga xamante ne moom la ñu moom la ñu bëgg c'est bien des fois de participer à des compétitions mm-hmm. on a rien mais des fois dem euh, participer déjà conditions yi metti na regroupement yi metti na vous y après vous revenez de de de des fois. sa sa pour appuyer pour appuyer li nga wax noonu le doyen Abdoulaye Diaw. oui parce que bu ñu bu ñu qualifié coupe du monde. waaw danoon toog ci rajo bi tous les dimanches naan euh, euh, li ñu war a dem maanaam participer coupe du monde te xam ne bi ñu ko jël ñu jël ko investir ci nga xamante mooy base bi. waaw moom moo loolu laa bëggoon a tontu Adja. parce que pour dem pour participer pour participer. Oui. mais aussi aussi les fédérations pour ñu xam leen pour ñu en visibilité tamit c' est d' aller participer aussi et pour la motivation des sportifs aussi c' est de voyager et d' aller participer euh, de participer et de se confronter avec d' autres euh, des meilleurs en général c' est c' comme ça mais il faut c' est un choix qu'il faut faire. Mm-hmm. si c' pour dépenser des millions et aller pour de la figuration est-ce qu'on donnera cet argent-là aux pour qu'ils travaillent à la base il y a, il y a cela, pourquoi Donc il faut faire un choix, c'est un choix de, des de fédérations qui doivent, euh, qui alors on espère que euh, njiitu réew mi Macky Sall euh, mi ngi ciy sóob mais dina ci gën a sóob et puis beneen président bi ñëw aussi au mois d' avril mu gën ko continuer mais surtout rawatina ce code du sport là on espère que njiitu réew mi balaa muy dem ce code du sport là nga xam te ne moo ñuy permettre ñu mun a am. benn fondement bu dëgër boo xamante ne dañ ciy sukkandiku pour mun a jëmale sunu sport ci kanam loolu moom au moins chantier la boo xamante ne dina ko résoudre une bonne fois pour toutes ñu xam exactement ban politique sportive ci la ñuy sukkandiku pour mun a développer li nga xamante ne moom mooy le sport sénégalais loolu day tax automatiquement il nous vingt cinq minutes bu ko defee ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy football bi euh, Grégoire Euh, tàmbali ko nag ak euh, sunu deuxième thème qu'on voulait aborder avec euh, Mamadou Gueye le président de l'AS Pikine mooy sanction yi daanu ci club am waaw justement loolu nag ça revient à dire que violence bokkul ci sport te waral na tey jii nag ñu daal di jël ay mesures yu am solo yoo xamante ne ni c'est pour le bien du sport mais aussi c'est bien c'est pour le bien ci ñi nga xamante ne moom mooy ay supporters ak lépp loo xam moom mooy nekk la suite du championnat Bakary Cissé moom moo ñu koy jàngatal. gannaaw incident yi amoon ci match bi nga xamante ne moo doxoon diggante AS Pikine ak Jaraaf ci la ñu mujjee délocaliser match AS Pikine yi loolu nag neexul benn yoon supporters yi bu ñu sukkandikoo ci seen njiit li nu mel nag jur na sax ay conséquences. li AS Pikine defagum ci année bi mat na 200 millions tey nga joué benn championnat boo xamante ne yaa ngi koy joué boo xamante ni boo jëlee sax nekk champion tu n'as même pas dans ta caisse millions kon loolu noonu tey jii nii amoo lu nga xamante ne tey ñoom dañoo waroon motiver équipe bi mais équipe bi fédération ak Ligue Pro ñoom seen seen seen focus lépp mooy maanaam di xool ni ñu daanee équipe populaire yi. comité bi nag rafetluwul daan yi nga xamante ne teg nañ ko AS Pikine boobu la comité jàpp ne Ligue Pro ak fédération. ñoo tëddewul njaxanaay. football bi dañoo waroo a toog waxtaanee ko club bu nekk am fa gàtt gàtt trois représentants ci fédération bu ñuy dogal ñu toog nuñ ko jalogee waxtaanee ko mais bul jël rek benn daan nga bu ko teg benn équipe fan lañ teg ne AS Pikine masam quatre matchs yi ko dese ci championnat bi huis clos lañ koy defee jaraaf ñaata incident ñoom Ibamar gars yi bu ñu sëgg affaire yi. match yi nga xamante ne ñoo dese AS Pikine comité des supporters taxaw na tëb ngir seen club mun a jouer rencontre yi nga xamante ne moo ko dese fii ci Pikine. dugal nañ record pour ñu indiwaat suñuy match fii Alassane Djigo parce que dafa ñu dese trois match ñu war a recevoir ñaari fii kii nii comme niñ koy waxee waaw njort nañ ni tey jii ni appel bi dina génn durant ñuy jouer parce que weekend bi tey amul championnat kon xam naa ni championnat dimanche lay amaat comité bi mu ngi ñaan autorité ñi ngànk football bi ñu daal di yëkkati daan yi nga xamante ne teg nañ ko ay ñu koy jaajëfal moom Bakary Cissé mi demoon à la rencontre du président des supporters de l'AS Pikine ci fàttale nag coow li euh, mi ngi jóge amoon na sax ndax ci phase aller bi on se rappelle c'était au mois de décembre fii ci stade Iba Mar Diop mu am euh, bu finalement ñu interrompre match bi 66e minute bi ñu ko interrompre après Ligue sénégalaise de football professionnel jël dogal jël trois points yi jox ko ñi nga xamante ne moom mooy waa Jaraaf vous attendez aussi à une manche retour boo xamante ne dina dina tàng dina métti et effectivement sa Alassane Djigo affiché plein yàggul c'était le 23 juin bay ñu génn mu am nag ay incident ay coow yu dul jeex du xaaj ba match bi jeex finalement avec une victoire du Jaraaf de Dakar aussi un but à zéro bi ñu ci jógee nag commission discipline di sénégalaise bu football professionnel jël ab dogal daan leen d'abord amende boo xamante ne toll na ci un million de francs CFA pare désormais Lice Pikine va jouer à huis clos hors de sa base affective looloo waraloon tey ñu invité woon ki nga xamante ne moom mooy le président de Lice Pikine pour aussi moom tamit mu joxe version ndax ay supporters joxe nañu seeni version dinañ aussi tàllal suñuy micro waa Jaraaf parce que ñoom ñu ngi tuumal waa Jaraaf te tey gis nañ match bu neex diggante le classico diggante le jaraaf de Dakar ak ñi nga xamante ne moom mooy wax Casa Sport ñu joué ko ci fair play stade bi neex supporters yi supporter li nga xamante ne durant tout la rencontre jaraaf gagné deux buts à zéro donc nag faw ñu toog waxtaan ci li nga xamante ne ab góom la sànq maa ngi koy wax ñu ut ci saafara te lu ñuy duut baaraam nag bokk na ci ñi nga xamante ne moom mooy comportement d'abord supporters yi ndax da ci am club yoo xamante ne fu ci mel ni Ice Pikin supporters yi dañu am doole lool lool lool looloo waroon tey ñu bëggoon moom Mamadou duggee mu ñëw toog fii on lui pose la question par rapport ak yooyu yëpp jowaat nag aussi dégager aussi responsabilité ji nga xamante ne ñoom ñooy la ligue sénégalaise de football professionnel parce que ñoom aussi am nañ ci responsabilité comme club yi niñ ci amee responsabilité balaa ñuy yegg ci fédération sénégalaise de de football Euh, demande nañ aussi posé nañ la question à notre confrère Demba Varor moom aussi donné donné na son point de vue sur la question. waaw mu ñëwaat rek Adja ci li nga xamante ne que moom moo ëmb football ak neexaay bi nga xam moom moo ci daal di tënk bu war na tey ji ce genre d'incident dañu war a wéy rek di ko gën a invité ñu déglu ko. bon violence yi am euh, Ligue 1 li si bëri euh, championnat local bi li si bëri man dama naan ku ci nekk partie bu nekk am nga ci wàll muy club yi. di supporters yi di ligue bi parce que tey jii nii boo xoolee yu si bëri am na si yoo xam ne sax da nga xam ne match à risque la euh, boo gisee jaraaf Pikine bi passé pendant plusieurs jours avant y a eu euh, ci réseau sociaux yi yenn affaire yenn wax yi nga xam ne xamoon nga ne peut-être que entre jaraaf biir pikin du yomb donc je pense que mënoon nañ jël ay matuwaay bien avant parce que ñaari club yi ça fait au moins trois quatre ans am nañ ay antécédents antécédents yooyu noonu nag euh, tant que réglé wuñ ko bu baax mooy au club yi au président yi ñu wax ak supporters yi wax ak ñoom bu baax a baax je pense que dina jafe euh, ñu réglé ko. moom pour man defaguñ ko le minimum mooy lan mooy maanaam booy sévir euh, bul di xaar naan ba mu dégénérer parce que gis nga tey bu amee première journée wala deuxième journée mu am ay violence mu concerner telle équipe. Euh, sanctionné wuñ ko nu mu waree ñu dem ba ay vingtième journée fi nga xam ne championnat bi la gën a bëri enjeu maanaam violence bi gën a yàq yokku ñu sévère benn équipe équipe boobu tout le temps day contesté parce que danaan pourtant ñële sanctionné wuñu woon leen bi ñu amee violence ñun ñu sanctionné wu donc moo tax sanction maanaam nañ koy appliquer tout le temps et buñ koy appliquer tamit nañ koy appliquer ci lu teel bu ñuy bàyyi bàyyi un mois après ñuy doog a euh, ñuy doog a génne maanaam verdict c'était la réaction de notre confrère euh, Demba Waror, c'est le rédacteur en chef du site euh, Sport News Africa. ñu koy jaajëfal Grégoire peut-être ma bàyyi la question boo am peut-être pour pour pour directeur. Euh, xëy na football du du corps d'homme mais quand même violence bi moom euh, c'est c'est c'est une chose boo xamante ne dañ ko dañ ko war a dénoncer c'est c'est c'est à comme ni ko Babou waxee waaw plutôt qu'une question Adja damay dem dans la contribution parce que mm-hmm. aussi ku ñëpp tuuf li nga tooy te je pense que AS Pikine c'est pas la première fois aussi ñu leen di indexer par rapport à ce de fait la daaw c'est arrivé ren aussi c'est encore arrivé donc je me dis que c'est ñu toog ndëppal seen bopp parce que aussi Euh, chaque année mënuloo ñu lay épingler par rapport à des des des trucs de violence et puis ñuy suspendre aussi des matchs kenn souhaitewul aussi di jouer dans des conditions de huis clos parce que ambiance bi benn neexul de deux aussi football xamul huis kilo ambiance la ñu wax euh, football fair play la ku nekk def jeu ku ci mën sa morom nga duma Pikine gënul tey côté Casa Sport gënul côté Jaraaf gënul côté tey te nga jëf seen ñi nga xam ne tey récemment la ñu jógee campagne africaine donc pourquoi tey yi war a am tey cette entente là Alassane Djigo nekk tey un stade boo xamante ni ça fait partie des infrastructures sportives yi nga xam ne tey championnat sénégalais dañ koy glorifié woo donc euh, tey entre bu mel noonu waruñu mën a toog di am des scènes de violence dans ce genre de stade là suba bu ñu toogee ñu wax huis kilo wala boog xeex am fa ñu yàq Alassane Djigo c'est la football sénégalais ci perd keneen pertul donc il faut dire que ku ci nekk tey ni nga mel sa kër noonu ngay yóbbu stade te ñun dañu war a mën a weesu tey loolu noonu fi ñu toll nii lenn la football yar la d'abord ci biir kër ga yar la ci kaw gradin yar la aussi ci biir terrain parce que aussi discipline tactique discipline sportive ñun ñëpp ñun ñooñu koy jàngal donc tey fi ñu toll football lenn la moom mooy sangu sañse ba rafet dem supporter bu ñu la gañee nga xam ne tey defet moom moo ñëw ma ñibbi buñ ma bu ma gañee tey ma ma célébrer sama victoire ci jàmm mais tey xool Alassane Djigo fi mu nekk tey bu fa violence amee ñay jaay mango ca wet ba ñoom ñëpp ñoom ñoo ci am jafe-jafe joueurs yi supporters yi ku ci nekk te ak ki lay li lay yóbbu stade donc il faut dire que ça va au-delà tey de cette Ligue 1 sénégalaise là ñu gën a xamaat tey lan mooy football lan mooy tey li nga xam moom moo leen di yóbbu te aussi xale yi nga xam ne dañuy toog di jël seeni seen seeni matuwaay yëpp dem seetaani ces joueurs la mais aussi ñi nga xam ne ñoom leen di yóbbu stade te nag ngay gàddoo xale bu ndaw yóbbu ko stade ba pare di yorato sécurité bi mhm. noo si tey yaa ngi koy woon tey une image boo xamante ni tey waru ko mën a xool ci yow ëllëg parce que dafa naan tey bu ma demee stade ñu mën a dama war a xeex marché ba tas mhm. donc y a yoo xamante ne tey jii esprit de laaj ñu romb foofu noonu tey xam ne le football sénégalais tey dañu nekk dans une dynamique dynamique boo xamante ne tey daf def ñu jëmale kanam donc il faut que ñu xam raison garder ñu xam li nga xam ne moom mooy suñu wareef en tant que supporter mais aussi suñu wareef en tant que féru de ballon. dañu am culture défaite. c'est-à-dire le problème du sénégalais. mooy amuñu culture défaite. c'est ça te nag euh, sport loolu la. Mm-hmm. victoire match nul ak défaite. effectivement Babou. waaw man Adja man li may laaj li may laaj mooy pourquoi euh, ñoom seen problème mën nañu ko jàpp ne si même équipe bi la muy saa bu ñu dajeek jaraaf day am muy match aller bi c'était comme ça match retour bi c'était comme ça. ay incidents la mujjee match bi. du àgg. Mhm. seen seen si neuvième journée bi ñoo wax jaraaf yaa ngi koy souligné léegi léegi. joué nañu bi àggul ñu mën leen 1-0 après match bi yàqu ñu jël 3 points yi jox bi nga xamante moo di jaraaf ba pare sanctionné maanaam euh, tapis vert ñu perdre les 3 les les li nga xamante moo di jaraaf. loolu tamit ak grec bu ñu koy wax joué huis clos nekkul loo xamante ne neex sax joueur la parce que joueur bëgg nañ bu bu ñu football moo amee supporters yi nekk ci kaw di leen galvaniser pousse pour gars yi mën a def seen kéem tolluwaay pour génn si parce que en plus dafa nekk beneen manque à gagner ci équipe bi nga xamante moo di AS Pikine mm-hmm. parce que AS nga xamante moo di stade Alassane Djigo day bi nga xamante 2 millions 3 millions ba dem li nga xamante moo di 4 millions seen match bi nga xamante moom la ñuy joué seen contre euh, tamit euh, euh, Ligue Pro bi depuis quelque temps ñu ngi doon ñu ngi doon plateau télévision bu ñu dem yëpp ñu ngi doon bàkku ne maanaam dàq nañ li nga xamante ne ban nañ li nga xamante ne moo di violence bi mais itam bu commencé ñëwaat di génnaat dafa nekk day gàkkal li nga xamante ne mooy euh, bu bu bu bu Sénégal tamit gars yi def nañ seen kéemte laay kattan ba signé benn partenariat télévision bi di 2STV pour ñu génne chaque match boo amee benn heure ko mais xoolal keroog li ñu def dañoo match bi daa jeex Karajo mooy le réalisateur otom yëpp lañ toj te lépp lépp lépp lépp lañ toj mu ngi si moo tax keroog gars yi Modou Mbaye wax na wax na li nga xamante moo di moo di maanaam li leen metti mhm. mais El Hadj Ndiaye tamit ni mu ko xamee da lay wóor ne match bu amatee AS Pikine naan say parce que bu dee foofu day yàqu ñu wax ne dafa nekk discipline comme ni ko li ko li ko li rek maanaam soxlawuñu li nga xamante moo di violence ci kaw sport bu violence amee rek bu violence fu mu mën ci am rek lu jëm ci wàllu sport dafa jàpp directeur par rapport ak sa sa réaction par rapport ak cette euh, violence euh, parce que ce qu'on a vu mooy euh, la commission de discipline de la ligue euh, de football par pratiquement ñetti ñetti mbir rek lay teg fi nga xamante ne moom mooy sanction financière wala mu tëgg la benn huis clos wala mu délocaliser la nga jouer ci fi nga xamante ne moom mooy terrain neutre yu bëri gis ne des fois il faut que yat bi dal bu baax certains même prône benn rétro rétrogradation boo xamante ne au moins équipe bi dina dellu soit division régionale wala mu dellu nga xamante ne moom mooy championnat amateur pour permettre leen ñu mun a liggéeyaat pour mun a dellu siwaat ñu xam ne lépp lu lu ñuy def ci biir fair play rek lañ ko mun a defee waaw violence moom baaxul ci sport quoi parce sport moom sport mbétte la daal ñëw mbétte wala ñëw seetaan sa njaboot sa njaboot ñëw seetaan ngeen dellu mais su fekkee ne da nga nar a ñëw def sport ñëw seetaan si. Mhm. sport euh, am fa gaañu gaañu. loolu moom euh, c'est loo xam ne dañ koy. wala la euh, loolu moom rafetul. mais aussi tamit il faut ñu équipe yi mën a éduquer tamit comme ni nga ko waxee seeni i. supporters yi supporters yi il ñu éduquer leen. soo gisee kii hooliganisme amoon na dans les pays européens Angleterre mais léegi amatul Angleterre da ngay ñëw toog nii terrain baa ngi nii. Mhm. ngay seetaan. te du am benn violence parce que euh, ils ont travaillé en amont donc euh, vraiment c'est éduqué nit ñi di foog ñu leen di éduquer bu baax wax nga de li ngay am sa kër rek ngay wane si si si mbedd mi. donc nañu xam ne ne comme football ku ku gaañ benn joueur si 18 mètres yi penalty la nañu xam ne ne donc déjà am na euh, sévérité am na ay sanctions dans dans dans dans la discipline même am na ay sanctions donc tamit ñeneen yi comme ni nga ko waxee sanctions yi peut-être peut-être sanction yi retirer trois points sur tapis mais su fekkee ne nag aju na ne nag ñu ñu def ay sanctions yoo xam ne ne nag day permettre mu andi apaisement mu andi ñoo euh, euh, euh, nit ñi mën a ñëw di seetaan nga xam ne dara du fa xew dara du fa am yooyu tamit war nañ ko mën di di appliquer tamit daal. alors euh, on espère que dinañu si tirer ay ay leçons. Euh, en tout cas dinañ continuer li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi dégager ko ci nekk sa part de responsabilité euh, tàmbali ko ak ligue football professionnel ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy club yi ak même surtout ñi ne ñoom ñooy euh, supporters yi en tout cas tey on a bien aimé ambiance bi amoon stade Iba Mar Diop ak même ce communiqué là que le Jaraaf sorti pour magnifier mm. esprit bi nga xamante ne Alekaza mais Alekaza ñoom miinal nañ nit ñi esprit boobu ñoom da nga leen di gagné ñu supporter nga gagné seen ñu gagné supporter ñu gagné Casa Sport ñoom ñu supporter ñoom moom habitué nañu ci li nga xamante ne moom mooy cet esprit euh, fair play là Grégoire avec euh, cette belle victoire euh, de Jaraaf deux buts à zéro. Pas déjà dire que le spectacle est au rendez-vous parce que aussi un grand match loolu la laaj c'est du spectacle c'est du beau jeu aussi. Ah, c'est des couleurs de supporters yoo xamante ni dañu nekk tey en furia totale donc loolu la ñu gis ah, tey ci stadium Iba Mar match boo xamante ni nag dox na diggante tey ñaari mastodonte ci bileek championnat ñu gis rek ni ah, tey nag les deux équipes répondu présent donte sax la rencontre a été un tout petit peu fermée sur le plan tactique terewul nag tey c'est Jaraaf qui a réussi à prendre le dessus jaar nag ci li nga xamante ni moom mooy ñaareelu pàcc bi ak Bamba Kane ak Melo ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo dugal les deux buts muy nag jàngat bi ñu ci mën a def rek moom mooy le Casa Sport nag continue tey de traîner des pieds parce que euh, bu ñu koy xayma tey bàyyi na génération foot aussi mu gën a échappé waat par rapport ak ñi nga xamante ne ni moom mooy euh, cette dernière euh, course ci wàllu ko championnat bi. alors c'était un match comptant pour la troisième vingt-troisième journée ñu joué ko en retard donc loolu moo tax mais semaine bi. match amul ci fi nga xamante ne moom mooy Ligue un bi mais Ligue 2 bi quand même Euh, disputé nañ d'ailleurs vingt cinquième journée bi lañ doon disputé tey. alors bu ñuy wax nag ci résultat yi nga xamante ne ñoo ñeel tey cette Ligue 2 le Dakar Université Club tey euh, dafa am un revers un but ci ci ñaar ci kanamu ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Lopor bu ñu koy xayma. Thiès FC ak Amitié FC ñoom derbi la woon mais nag ndam demul ndam dekul kenn ci ñoom benn but la daal dugal victoire du Njàmbur nag ci kaw HLM Oslo dafa ci kanamu Kër Madior muy résultat boo xam ne naka dina compter bu baax a baax naka noonu tam ci diggante ah, jamono bu Fatick ak HL bu Rufisque wàlli daan dafa daanu tam ci kanamu ñi nga xamante ne ni ah, ñoom ñooy waa Mbour Petite Côte entre dem ba Diop ak Union Sportive Ouakam bu coach Tavasek ndam demul ndam dekul ku ci nekk tam benn bal nga daal dugal aja muy résultat yi nga xamante ne ni ah, ci Ligue bu Sénégal ci journée bi nii. alors des rencontres très très suivies rawatina site euh, opposition entre Jamono de Fatick et AGEL de Rufisque ak aussi ni nga ko waxee woon US euh, Wakam alors euh, au niveau du classement. changement am na. Mm-hmm. ndax jamono de Fatick cette belle victoire à domicile permettre na ko désormais mu jël euh, li nga xamante ne moom mooy première place bi à Agen. conséquence Adja muy 43 point yoo xamante ne tey ñoom glané nañ ko nag daal di rek féete ci kaw championnat bi la suivi nag de l'union sportive bu Wakaam mi nga xamante nag moom des na ci ginnaawam ak 2 points waaye nag Wakaam ba léegi génnagul ci affaire parce que euh, toujours juste derrière euh, ñoom ñu ngi rawante ak Agel bu Rufisque aussi ñoom ñoo daal di tolloo point waaye nag li nga xam moom mooy mooy def différence bi moom mooy cette différence de but Oslo moom moo féete ci ginnaaw ak 36 points buñ koy xayma nag ci li nga xam ne moom moo nekk le ventre mou de ce championnat entre euh, ñii di Demba Diop FC HLM bu Dakar Ndiambour ak foofu noonu statu quo la ba léegi noonu rek ba ci li nga xam ne euh, jot na Dakar Université Club nekk ci douzième place bi malheureusement nag euh, jamono ji pour ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Port dafa mel ni yëf yi dafay mujjee rek yàqu waaye terewul ba léegi Kër Madior mënees na nag am yaakaar parce que Dakar Université Club mi nga xam ne moom moo féete ci douzième place yaakaar naa benn poñ cote la ko rawee moom ak Mbour Petite Côte ba léegi lii di Amitié FC nekk ci dixième bi tam am na trente points maanaam trois points de différence il faudra à faire le paquet ci vingt-sixième et dernière journée de cette euh, Ligue 2 pour xam ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem euh, d'abord qui nekk euh, l'équipe championne de cette Ligue 2 là mais surtout les deux équipes qui vont retrouver li nga xamante ne moom mooy la Ligue 1 sénégalaise bien évidemment parce que yaakaar naa ne fi ñu toll nii euh, c'est la dernière ligne droite donc euh, il pour sortir tey euh, de ce gouffre là mais aussi euh, def li nga xamante ni tey jii moom mooy un résultat positif pour des ci li nga xamante moom mooy bañ a nekk dans le calcul foofu la yëf yi toll bu fekkee nag ci li nga xam moom mooy ñelloo du classement pour man l'union sportive de am tey ni ko coach waxee woon rek bu fekkente ni des nañ ci seen i certitude pour man dinañu rejoindre tey élite bi nga xamante ni te moom moo leen di échapper depuis des années donc euh, il faudra dire que ça reste encore des choses yoo xam ne war nañu ko mën a def donc la pression reste ci seeni joueurs la mais nag c'est aux aussi de faire le travail parce que aussi dans dans dans ces moments là la pression elle monte à tout moment surtout dans les fins de match et les débuts match donc euh, ils tey le bagage qu'il faut donc euh, dire que euh, niveau championnat sénégalais moom moo nekk di monter fi ñu toll nii ba mu waral tey ñu am ces matchs assez serrés là jusqu'à la dernière minute parce que pour man euh, ay année ngi nii laataa ñu egsi tey ci vingt cinquième journée xamoon nañ bu yàgg ñi nga xam ne ñooy yéeg mm-hmm. la preuve gis nañ ko ci national avec les ñaari tey ci Ligue 2 bi la fal moo defaat beneen jéego tey ba rawante bi toll fii aussi joue na ci part bu am solo donc euh, Babou fi ne nii rien encore perdu pour l'Ouest Ouakam <laughs> euh, c'est vrai jamono xaw na am tuuti longueur doon euh, <laughs> jël na jël na tuuti benn longueur d'avance mais attention à l'US Ouakam Agel mm-hmm. aussi mm-hmm. mi ngi conserver un peu ses chances Oslo moins mm-hmm. effectivement Adja Ousseau gars yi bàyyi nañ ko fa parce que tey dañ ko dóor tey euh, dañ ko dóor tey malheureusement kon instant yi trois équipes yi mm-hmm. mu di AGEL ak euh, jamono Fatick Wakam ak AGEL ñooy xëccoo li nga xamante ne moo di déplacé pour yeeg ci euh, maanaam ci bi ñoo xam mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek peut-être que xamaa peut di maanaam jamono Wakam da ko gagné pare dem match suñu foofu noonu foofu noonu Wakaam bu doon dañuy xool confrontation bu ñëwee ba tolloo ay point foofu Wakaam moo jàll mais Wakaam moo Agel Wakaam Agel Agel da ko dóoral match aller bi retour bi gars yi match hmm. booy te actuellement nii ñoom ñaar ñoo tolloo point ku ne 40 points mu di Agel ak ay Union euh, Sportive de Ouakam ñu ku ne 40 points mais confrontation confrontation directe bi hmm. Agel mooy am avantage foofu noonu Agel Agel mooy bu dee dañu tolloo point si dernière journée bi foofu tamit Agel mooy jàll te te Ouakam match bi ne dernière journée bi Adja ñoo ñi nga am Duc

vous allez recevoir. incha allah ñoo ko ñoo ko euh, Dakar Université Club. d' accord <laughs> euh, donc bonne chance aussi à l'US Ouakam fii la ñu dëkk nag. Ah mënuñu leen mënuñu leen bañ a bonne chance tous nos encouragements aussi au Dakar Université Club on espère que dina am. confrontation boo xamante ne bu am solo ndax ja ndax jafe-jafe yi nga xamante ne Wakaam di ko dund on se rappelle mhm. euh, violence rek moom moo andi lii en 2017 mhm. on s'attendait à une très belle fête du mhm. football malheureusement ay doomu Sénégal ñàkk ci euh, seen euh, seen seen bakkan bu ko defee Euh, directeur maa ngi ñëw ak yow euh, ci li nga xamante ne moom mooy Ligue 2 bi mais très rapidement on va parler de Bitisook euh, Babou ak cette première défaite depuis 2015 l'équipe nationale coachée cette fois-ci par Mamadou Lamine Diallo mi ngi soog a am défaite am depuis 2015 jusqu'à présent en 2023. te ki leen ko jox moo di. mooy Ngalla la nekkoon euh, capitaine bu euh, maanaam nekkoon capitaine d'abord bu équipe nationale. Mhm. ba pare ñëw nekk sélectionneur euh, jël trophée bu nekk équipe bi nga xamante moo di beach soccer yu ñoom ñoo daje final ñu dóor ñi nga xamante ñoo di gaynde pour une première depuis maanaam juróom-ñaari at sénégalais amul li nga xamante moo di defet ñu xool jàngat bi après ñëwaat ci plateau bi. plaidité équipe nationale ci beach soccer nekkul loo xam ni rek mën nañ koo bind saay su nekk ndaxte rek ñu génnee ci match coupe du monde yi. Sénégal amoon na taxawaay bu dëgër ci Afrique wërngal këpp défaite bu ñu mujjee am ci bile équipe final la woon ca atum 2015 ñu doon ko amal ca Seychelles Sénégal nag mujjee ñàkk match bi rek ginnaaw bu ñu doon amal ay tiro but ci kanamu équipe bu Madagascar boobu nag ci Dingala Sylla moo nekkoon capitaine équipe bi benn at ginnaaw Ibrahima Ndiaye wóotu ko ci bile bopp équipe nationale équipe bu Sénégal dëgër lool kenn mënu ko woon daan ci diirum juróom-ñetti at mu tolloog ñeenti coupe d'Afrique yu ñu dajale di ko gañe ñetti yi sax ñu ngi ko jotoon am ci ndodd kii di capitaine Silla ca atum 2021 ginnaaw bu ñuy waajal kaan bi ñu doon amal fii ci Sénégal ci diggante équipe bu marok ak équipe bu Sénégal ñu doon rek xëccoo ñetti match amicaux ci place bu jàmmalaay Sénégal remporté yile match yu ñu doon amal ca weerum avril marocain yi nag jëlee ci ab ñàngat gu sori ci équipe bu Sénégal ba noppi itam nakarlu rek que ni ñu amee rek équipe national bu wutee ak championnat lañ ca bëggoon rek mooy ñu mën a wëy ci bile bopp fédération benn at ginnaaw yooyu le match avril 2022 équipe bu marocain bi nekkoon rek ab kuje bu dëgër ci équipe bu Sénégal ñu yegg ci demi-finale bu metti loolu wante gaynde Sénégal yi mujjoon leen daan ci ñetti bal ci ñaar ci loolu nag équipe bu Maroc bi defaruwaat rekk ba taxaw tem gën a yokk ndëgër laayam ba mu ñàkkoon ca atum 2013 ginnoo ne mu ñàkkee woon finalu première édition des Jeux africains ca atum 2019 looloo waral nag moom équipe bu marocain bi jëlaat revanche ci équipe bu Sénégal aljuma bi ñu génn ginnaaw loolu nag marocain yi taxaw temm ñi remporté bi le match ca séance su tiro bi mu tolloog ci ñeenti bal ci ñett ginnaaw ab temps réglementaire mu mujjee doon ab ñetti ñett merci beaucoup Fatou Sall mi ñu defal euh, jàngat euh, bi on espère que ñoom ñi nekkoon champion en titre ci Jeux africains de plage yi nga xamante ne en 2017 fii la amoon Cap-Vert ñu jël raaya ji malheureusement bi ñu demee fële ca Tunisie Hammamet foofu la leen euh, Maroc gagné ci série tir au ak à la tête de cette sélection un Sénégalais Ngala Sylla moom mi doon tàggat gaynde yi finalement mu jox lenge yi Mamadou Diallo j'espère que ñi ngi jëm ci li nga xamante ne moom mooy ay coupe du monde coupe du monde boobu nag on espère que défaite bi dina nekk benn piqûre de rappel pour ñu gën a defaru préparer wu ndax koo xamante ne yow dem nga ba demi-finale d'une coupe du monde on espère que cette fois-ci boo demee di nga def mieux peut-être qualifié wu en finale loolu nag doo ko décréter nii duñu ko décréter ci plateau dafa jaar nga préparé wu bu baax a baax ndax li meilleurs ñoo nar a daje fa li nga xamante ne moom mooy euh, ca ca Dubaï peut-être benn benn commentaire balaa ñuy wax ci li nga xamante ne moom mooy navétane yi ndarket oui mais je pense que féliciter équipe bi ils ont gagné une médaille d'argent. oui mais médaille d'or moo leen gënaloon. donc le temps la nag ci waaw si si gagné dina leen permettre ñu xoolaat la mm-hmm. lan moo tax euh, Maroc gagné leen. pour mm-hmm. beneen yoon ñu mën a gagné Maroc pour euh, mën a participer à la coupe du monde pour faire. Euh, pour dépasser les demi-finales parce que bële passé demi-finale woon. xam nga pour passer ko donc ñu ngi leen di souhaiter vraiment de de de se revigorer de ñu ñu ñëwaat gën a entraîner gën a pour suñu demee foofu mën a yóbbu réew mi fu sori. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe nationale de beach soccer. On espère qu'on aura le temps, Inch'Allah, avec Mamadou Lamine Diallo, Al Seyni, le manager Ibrahim Ndiaye Chita, euh, président aussi Oumar Gueye Ndiaye, waxtaan euh, par rapport ak li nga xamante ne moom mooy waajtaayu coupe du monde boobu euh, balaa ñuy ndar képp ñu wax ci championnat populaire bi ah, fi nii ñu ngi waaj ñu ngi ci réaffiliation <laughs> voilà en fait je parviens ak ñuy fay assurance yeeg yooyu ñu gis nag quelqu'un comme euh, maître El Mamadou Ndiaye moom mooy maire Thiaroye-sur-Mer mu dajale ASC yi euh, jàppale leen nag ci ci subvention yi Babou dimanche bi nag monsieur le maire yokk na ko maanaam ba ci 2 euh, millions. Mhm. Euh, mu 1 million la woon mu yokk bi dem yóbbu ko ba ci 2 millions. jagle ko ñi nga xamante moo di ay ICM bi nga xamante moo ñoo nekk ci commune am parce que dañ leen def lañ ko promettre loon bu toogee ci doon kaas gi dina leen jox li bi. dafa nekk loo xamante ni dafa dugg ci politique sportive bi ñu bëgg a développer. parce que damay wax ne engagement lañ jëloon ci biir population bi si suñu programme dañ ci digge woon. ne bu ñu ñëwee dinañu yokk subvention yi nga xamante ni ASC yi rek ñoo ko doon jot ak zone beneen bi te mu nekk def défi mooy que ne dañu gis que ne Thiaroye amul infrastructure sport ñu am nag benn obstacle mooy problème espace mais malgré ci loolu ñu ngi discuter ak ay partenaires pour fexe ba Thiaroye am li nga xamante ne mooy ay aire ñu ngi ci yaakaar nañ ne ginnaaw bu ñu defee acte 1 de suñu engagement acte deux de sunu engagement acte trois bi mooy ñu fexe ba Caaroy am loolu te ñu ngi ci incha allah di dinañ ko am. voilà c'était la réaction de maître El Mamadou Ndiaye euh, le maire de Thiaroye-sur-Mer euh, des propos recueillis par Bakary Cissé euh, leneen lan nga ci bëggoon yokk rek par rapport ak euh, décision bi mu jël jàppale ay ASC yi mais surtout créer ay aires yoo xamante ni dina mën a permettre à ces jeunes sénégalais ñu mun a aussi bu ngoonee wala même le matin ñu mun a def li nga xamante ne moom mooy pratique sportive waxuñu ñi nga xamante ne ñoom ñooy les professionnels mais pratique sportive tàggat yaram mhm. dafa baax ci ci doomu aadama effectivement Adja euh, maire bi euh, dafa am ñoom dañoo baaxoon teer benn affaire mhm. maanaam benn ASC boo xamante ne la mais ñu ngi tudd ASC avenir ñoom ASC boobu euh, maire bu fa nekk rek mooy nekk li nga xamante ne mooy mooy maanaam mooy président moo doon président bi quoi ba tax na subventionné leen ci lu toll maanaam cinq cent millions jamono ji nag Adja ASC avenir boobu dañu def dañu jouer championnat dañuy jouer championnat mais championnat si si si bas niveau bi lañ nekk quoi. régional voilà. léegi ñoom dañuy jouer benn tournoi seen championnat rek ñu mun jël paie léegi bu ñu jëlee paie après dañuy jouer li nga xamante moo di play playoff kay man mercredi passé gars yi joué li nga xamante ne mooy seen premier match gars yi ñoo am victoire te trois match la trois match yi léegi bu ñu ci amee bu ñu ci amee bu ñu amee trois match bi euh, maanaam victoire ñoom ñooy génn ci li nga xamante moo di seen poule c'est bon dañu yéeg beneen beneen division supérieure di division li nga xamante moo di maanaam division euh, régionale ah ça ça c'est une excellente chose Thiaroye euh, dellu si waat comme on espère on a ñi ngi félicité waa AGEL mais Fatick dellu si ci élite bi tamit lu am solo la Kaolack ainsi de suite malheur seen chargé de communication mooy mooy sa réalisatrice bu mag bi. ah d'accord <laughs> Penda alors kon kon kon Penda job et on souhaite à ce à ce club là mu ñëw ba pourquoi pas fekk si li nga xamante ne moom mooy division régional euh, yéeg au au fur à mesure parce que bëggu nañ loolu boo xamante ne kaddu bu mujj directeur. waaw mais kaddu bu mujj mooy vraiment kontaan si si li ngeen ma invité. comme d' habitude. quoi mhm. discussion bi dina du yomb des fois. <laughs> parce que am na question yoo xam ne c' est difficile de répondre mais toujours ñu trouver solution trouver entente et puis bon comme ni nga ko waxee ñaanal Louis François. ko mu am ay ndam yu bari bëri dugg si championnat jeu francophonie bi après championnat du monde jeux olympiques ak yeneen athlètes sénégalais yi tamit ñi dem ci de la francophonie et yaakaar nañu euh, am na ñeneen ñoo xam ne war nañu mën a mën a qualifier donc euh, sànq sànq sànq sànq ñi ngi doon wax affaire moyen mun nga mun nga jox nit sa moyen du am résultat donc sa euh, aussi mun na mun na am mais mais ñoo am moyen tamit c'est quelque chose de de de félicité fédération bi nga xam ne fa la athlètes yi bokk di liggéey euh, mais avec beaucoup de difficultés en général yooyu yëpp yéen xam ngeen ko war nañ si mën a waxtaanaat ba nga xam ne athlétisme bi mën a mën a avancer mën a dem aussi tamit di di di remercier la confédération africaine d'athlétisme le directeur général Lamine Fati bi nga xam ne vraiment moo taxaw tànkam ba centre bi mën a am parce que il faut que ñu joxe ko waa CA def ay moyens pour mu kii mais aussi comité olympique comme ni ma ko waxee mi nga xam ne le président Diagne Ndiaye a, a tout fait pour andi les Jeux olympiques de 2026 ici à Dakar ba nga xam ne président de la République d'accord si loo tamit dañ koy namoo parce que fu ñu dem si àddina bi ñi ñuy wax Dakar 2026 donc vraiment tamit dinañu permettre ñu am ay infrastructure aussi ñu permettre aussi ñu ñu yeneen discipline ñu ñu ñu développer ko aussi mais dinañu yéex ne infrastructure yi parce que actuellement infrastructure moom daal xaw na sooxee tuuti malgré ne président def na fi ay jaloor yu yéen stade stade bu mag bi arena Ablaye Wade et tout ça dans les trucs mais des na parce que Sénégal koo gis actuellement mi ngi def sport. Mhm. koo gis mi ngi def sport donc sport bi nekk na benn facteur euh, boo xam ne de développement parce que ku gis joueurs yi li ñuy gagné wala basket li ñuy gagné si xaalis. donc euh, vraiment ñëpp bëgg nañu mel ni ñoom mais il faut ñu am fu ñu ko mën a mën a mën a mën a. mën a defee di remercier Convergence aussi mu ñu jox treize bourses et tout ça donc euh, il faut que ma ma remercier ñi nga xam ne def nañu lu baax euh, ku ma ni Petrosen jàppale nañu ren bi ñuy dem championnat bi ñuy dem fële naka koy waxee Paris pour def sunu sunu stage jàppale nañu bu baax donc woo yeneen sociétés tamit ñu mën a jàppale ah, doomu réew mi. parce que yeneen sociétés voilà parce que état bi su jàppale peut-être yeneen sociétés tamit suñ si jàppalee comme Petrosen mu def ñooñu jàppale suñu stage bi ñuy def mmh. ren xam ne ne luy si la bokkoon sax mun nañu wax tamit ñoom tamit si développement bi la ñu bokk tamit si tamit su ngeen seeti jee ñu mën ñu ñu mën ñu ñu mën ñu ñu mën ñu jàppale wax na fii tamit il faut vraiment le statut du sportif débët nañ fa luy xam ne ne day ba sport comité olympique daje nañ am lu ñu fa posé tamit yooyu dafa war a jaar assemblée mhm. yooyu yëpp application bi rek moo war a des su jaaree assemblée donc yooyu yëpp mën nañu génn si si si tolof tolof yi ñuy am te loo xam ne ne pour euh, adoption la ak ah, application ñu mën ko ñu mën def de wax aussi de statut du sportif sportif bi tamit il faut nga nga xam lan la mhm. parce que gis nañu ay sportif yoo xam ne dañuy retraité pare ñuy def ay quête pour benn rajo bu ñu leen war a defaral wala ay lunettes ñu war a jënd wala opération bu mu war def bu mu jógee fa dee yooyu baaxul tamit parce que ku ku sol équipe maillot national rek maillot national soo ko solee état bi war na laa ameen amee njukkal te loolu yëpp si statut du sportif lañ ko lañ ko war a def et puis tamit euh, comme ni mu koy waxee euh, jàppale bi mënul bokk si xool benn discipline rek mi ngi réussir ñu ñu jàppale boobu bàyyi ñeneen ñi. mooy li ma leen wax sànq quoi waxuñu égalité mais mu am équité mm-hmm. ñu fay benn entraîneur fii yeneen entraîneur yi ñu mën leen a fay parce que bénévolat fajatul dara bénévolat fajatul dara quoi donc euh, yooyu yëpp waxtaan nañ ko si dialogue bi waxtaan nañ ko si dialogue bi donc euh, j'espère que commission commi sous commission bi mais war nañ ko mën a appliquer mm-hmm. ñu mën a ñu mën a dem parce que Jeux olympiques de 2026 yi pépinière bi fi jógee mooy yi ngay wax fédération yu bëri ñu ngi liggéey seen pépinière de 14 à 18 ans ñooñu ñooy nekki nos nos meilleurs avec les meilleures infrastructures que nous aurons yi ñuy war a am fii fii si fii si fii si Sénégal et puis euh, wax nañu aussi euh, euh, infrastructure de proximité yi comité olympique mi ngi siy liggéey ak coopération yi mu am dinañu dem si 19 communes yëpp jëm fa def dara fi mu nekk am na benn délégation chinoise bu fi ñëw boo xam ne fédération yi rencontré nañ leen ah ñoom tamit sàkku nañu sénégalais yi ñëw ba Chine xool ñoom naka la ñuy liggéeyee yooyu yëpp sur l'égide du comité olympique parce que comité olympique moo ëmb fédération yëpp. donc liggéey boobu yëpp di foog ñu ñu ko ñu koy rafetlu. donc euh, coopération mooy décentralisée bi su état bi mën a def comme ni ma ko war a def société yi mën si jàpp ñëpp jàpp si donc sport bi dina mën a na jëm kanam parce que suñu suñu tolloo du dégg ku ni Sadio Mané ah, ñu koy ñu koy ñu koy mu nekk fierté national wala ñeneen footballeur yooyu yëpp te ñoo xam ne fii la ñu jóge ñun mun nañu préparer yeneen sportif yu bari bari bari mën nañu ko mën nañu ko defar fii si fii si Sénégal. d'accord merci beaucoup euh, El Hadj Amadou Diaba euh, quelques secondes joueurs yi temps yi jël tendance dem bi Saoudite yow xam nga ko. ah mais ku ñu fay ay vingt cinq milliards kay. <laughs> lu bëri dañu gis <laughs> doo mais mais mais ñoom nag euh, ah, xaalis bi bari na foofu parce que ñoom tamit ay professionnels lañu. Ah, si loolu ñuy dundee. yoo xam nga Arabie Saoudite. xam naa Arabie Saoudite bu baax def naa fa def naa fa cinq ans def naa fa cinq ans j'étais entraîneur national. pour yow est-ce que ñi fay dem après war nañ mën a performant. waaw mais parce que war nañ mën a performant parce que équipe yi foofu soo gisee ñu bari nga fay dem donc ça veut dire que dina am performance. bu baax te te soo gisee Arabie Saoudite euh, euh, gagné Argentine. voilà première que euh, match coupe du monde. te Argentine moo jëm jël coupe du monde bi donc aussi te am na ñu benn politique sportive boo xam ne ne vraiment ñu ngi koy développé donc je pense que xaalis bari na fa moo tax joueurs yi tamit ñoom tamit ñu si wax wax wax nañu dëgg. mais mais yooyu tamit wax nañu dëgg waa <laughs> xaalis dafa bari. waxul waxul jaar na. Greg kàddu gu mujj gi. moo tax rek fu mu toll day suukar rek. ñu ñaanal waa Wakaam parce ah. bëgg nañ yéeg ñun ñëpp. fii lañ bokk daal. coach ngir yàlla. assurer face au duc nañu dimbali rek. ñu ñëw fii comme ça ñun ñu mën na di toogaat di ame nit ñi di wax. <laughs> yal na yàlla def jàmm ak jàmm ak am incha allah. <laughs> alors euh, Babou kaddu gu euh, kaddu gu mujj gi waruñu far mais cette fois ci ñu ngi ñu ngi ñaanal quand même wakaab kontaan nga. te man kay maa far man de waxuma fi laa juddoo fi laa <laughs> ah <laughs> di la di la remercier di remercier aussi ki nga xamante moo di sunu invité di El Hadj Amadou Diaba. Mm-hmm. di jafe tamit un di jëy un petit dédicace. Mm-hmm. sama l'ancien mentor. Adama Kandé neen mu ngi suivre depuis le début mu ngi suivre ah, ah neen tous les dimanches mu ngi suivre affaire bi ah, ah, Adama Kandé Adama Thiongel bu dee <laughs> voilà non moo c'est les pieds d'or waaw léegi la voix d'or laa koy wax ndax man mën na maa jox du bi ba léegi du wala di <laughs> sama professeur di jox ay rendez-vous incha di ñëw. <laughs> merci beaucoup ñu ngi koy euh, ñu ngi koy nuyu Adama Kandé euh, de la 2S di jaajëfal tous les confrères di jaajëfal aussi ñu xam te ne saa su ne dañu safoo suñuy programme euh, di jaajëfal équipe technique bi ñu accompagné Penda ci wàllu réalisation bi Pape Diouf Djibi ci wàllu montage bi moom dafa bokk ci desk bi di souhaiter bon repos à Ibou Kouyaté on espère qu'on va le retrouver incha dans un mois mu jóge ci li nga xamante ne moom mooy congé bi euh, jox leen dig daje incha allah dimanche prochain même heure même chaîne toujours avec le même plaisir jërë ngeen jëf.